mer association fecckat yi nañu génn woykat yi nañu génn ndax as Aziz Dabala dafa doonoon kenn ci biir nit ñi ku dugg ci aar xam ne def na fa lu rëy riig ko fa ndax xale yu bëri forme na leen tax ñu xam leen kon tey lii bu dalee ci kawam war na noo takku ba dëgër yéen artistes yi lii panel bi Aziz kii samp woykat yi la waroon ak fecckat yi te xam ne seen mbokk dem te ku ciy demee woon ni Aziz demee di nga bëgg ku la waxal mm-hmm. waaw bu ci demee woon nii di nga bëgg ku la waxal kon nag tey ñun ñuy di xeex waa diaspora bi àdduna bépp nday ñëpp respecté la kon nag takkal sa ndigg nga la doo ragal nag doo tàppet gaynde nga te xam naa la barke sëñ Fallou fa dëkk xam naa ko nday la daan gis nii waaw bu kenn bu kenn ci digg Sénégal ndax téye nga sa drapeau ba pare kon nag bu ko kenn daaneel bu kenn ba fuwe sa honneur ndax demu Aziz Dabala gi ngeen baal ma nag. jërëjëf waay. baal nañ la ndegey ndegey ça man man la zoo ba tey de man la zoo ba tey de xam naa ne da nga wax sonal naa la de mais maa ngi koy tuub. Mm. waa ndegey man dama am lu ma li ma la bëggoon a dolli rek ci laaj bi euh, da nga dem seeti Nabou Leye bi nga demee nga ne waxtaan nga ak moom mu ni la dalalal dalal leen seen xel. moy fi ma nek ni dina fi joge léegi léegi te defuma dara non waxuma la lol de mm. waxuma la lol de déggoo wax lol de. Mm. zo degoma ma wax bi nga demé non mais bi nga demé sa sor zo zo mm, zo attends man duma wax di waxat man gey Ndior duma wax di waxat mm-hmm. mais waxal ma lo xamanteni mom la dama ni la lundi ba man dewma dew no deglu dewma ma mm-hmm. man man nagulay dewma dew pendant tout ce temps bi fa def yeb dewma fa Hmm. parce que yu mel nii laa doon daw ay détails laay daw man comprendre nga. Nabou Leye man fekk naa ko dig man man man dig seeti ci dig. Hmm. waaw dig laa la wax waaw man xam nga tudd guma campinal ba léegi. waaw kay. voilà xam nga bi ñu bi ma lay commencé di wax ba nga may wax naan ma zo waxuma loolu xam nga man tudd guma campinal dama ne yow génn nga nga wax ne gis dé yow toog nga ak Nabou Leye wala gisante nga ak Nabou Leye mu la dalal leen seen xel. right yow lolu ci yow la ko déggee xam nga nit bu dalal len sen xel man defuma dara ok bi mu génné amna na ku la laaj légui ndax wona la nga né wowul la mais suma wowul sama fu té booba da nga accepté won nga né nabulay sa dom la té da nga fier si ba légui ni may waxé yow ni sama dom la je suis fier d'elle sama ko dem sama waxatel lolu ok d' accord mais. mais man sama dégg euh, dama ni non non mais defal naa mais où problème bu ma woowee bu ma woowul où est problème graaw. amul problème fi ma ne dem fi ba tey man. li ma waxoon démb mais man lu ma d'accord voilà d' accord man xam nga man lu ma lu ma lu ma d' wala sama gis-gis wala lu ma gëm ne mooy am. mooy mm. nit ki bu fekkee ne yàlla dafa def mu boole leen ba pare. ba pare mm. mu nekk sa doom. ba pare mm-hmm. bi jafe-jafe amee nga dem gisanteeg moom. mu ne la dalal leen seen xel. dalal leen seen xel. defuma dara. kooku bu mu génnee même su la woowul nga yéeg si kaw nga ne sama fu euh, ba dina bëri ñoo xam ne dina tey seen xel ci loolu. waaw mais tey xel ci naka zo. mais loolu mais léegi léegi mm, mais zo zo zo zo taxawal yow mm-hmm. yow yaa mm-hmm. taxaw déglu ma zo tey tey bu ma nekkee tey ci ay jafe-jafe suñu borom teg ma benn nattu bi. Hmm. Zou, mank nga kham ma. Mwen gen yon khol se ma. Hmm. Ma dem tribunal, mwen dem tribunal, nyon lak la, mwen hmm. jesuy la, jistud pou Aziz Dabala. Kompran, gen yon mwen fyi pou ndege, gen yon mwen fyi pou kenmede, gen yon mwen fyi pou jistud pou Aziz Dabala. Bo gen net, tay, bo mwen gen net tay, waw mwen la telefon, lwen khala? Ate len mwen, lwen khala? Daka. Daka. est-ce que comprendre nga mm, mm, fi may waxee zo. d'accord. ama ngeen wala déggoo fi xam nga fi may waxee léegi xaaral rek. Mm, man sama yoon nekku ci man ku ma woo baax na. ku ma woowul baax na. Mm-hmm. ku ma seet baax na ku ma seetul baax na mais li sama xol mu ngi kenn du ko dindi. Mm-hmm. d'accord ma dimbali ma am fu wax rek lu ndaw ah. parce que Ndeye Dieye moom. da nga ko posé sànq benn non xaaral ma ñëw da nga ne ko hmm. moom daf li dafa leer parce que tey jii nii art dafa am respect quoi moom xam na li may wax parce que artiste la ñi ku la féete mag sa maay soro sa mag la ci art quoi bu ko nabu wooyee bu ko woow moom loolu ay ree koy def ndax bu nekkee six hmm. fi mu dem ci danse bi demu fa kon moom du fi nekk ay appelu nabu di ko touché quoi mu koy teree nelaw loolu ay ree pour man sama xalaat bu gàtt xam naa ne loolu moo nekk ci moom ay ree la koy def loolu bu ko woowee bu ko foofu lay wax ak yow. ok léegi. léegi damay génn ci côté côté côté Nabou boobu ak ndey gi foofu man li wax dégg naa ko. léegi ndey yow xam nga euh, bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi maanaam like nekk social media bi. nga xamné ñom ay influenceurs lañ ñu bi affaire bi dañ doon wax mais cinq jours trois jours quatre jours Hello, assalamu alaikum. salam. I'm sorry, but that's how Billy, I do. Billy, no, let me. So do leen may tuuti ma wax Ndeye Gueye Ben question rek laa ko bëggoon wax. en fait li ma wax yéen da ne da def. To get off. <sighs> I'm glad. may ko pay na ci Saba, mu ne ko nuyu naa la waa ya, yow rafet trop man macha allah waaw nit moom comme ñu understand ne diggante moo koy xam nekk si si si diggante rek bi ko sax dafa jaboote ñoom ñaar ñaar ndey waa ndey ndey dinaa la woo pare dinaa la woo ndey dinaa la woo gaay ndey xam naa xam wala wala wala léegi man ah dafa benn affaire zo maa ngi lay ziar ah léegi man gars yi. maa ngi lay delloo ziar. non zo non kii non ndey dinaa woo dinaa woo day waxtaan dama bëgg man dama bëgg mu sajji life bu am doole man xam naa ne gaynde la gaynde la dama bëgg mu sajji life bu am doole jël photo Aziz Dabala taf ko si ginnaawam woo ñépp ñëw ñu xeex xeex bi xool fi justice bi fu affaire di féete ma loolu laa bëgg man ci loolu laa woo. man ci loolu laa koy en tant que sa frère sa rak sa frère di ambassadeur man dama laa woo si côté boobu noonu nga taal live def live bu mag ñëpp ñëw nga woo ñëpp nga wax li xew nga wax maanaam li dal Aziz Dabala ngeen taxaw si justice ñu ñu ñu leeral lan moo tax ñu rey Aziz loolu bëgg naa bëgg naa bëgg nga def loolu quoi. day ambassadeur ambassadeur euh, may ma tuuti rek. Euh, ambassadeur maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa waa panel bi man nag gëj naa fi dugg sax parce que fan yi dama xaw a lii rek mais dama bëgg tamit euh, bu yàlla dogalee ay nit ñu bokk benn benn buum bu ñu téye. boo ñoddee sa morom ñoddi da ngay yëg ne say loxo mu ngi tàng right mm-hmm. Mm-hmm. mais bul ne ne kaa leen ñu jàpp ba pare yow ngay yoxamal keneen di yoxamal keneen di yoxamal keneen di yoxamal gis nga àdduna bu lépp lépp lépp lépp lépp jeexee bu fi dëgg desee rek lépp lépp mu ngi fii buñ jàppee na lépp muntu nekk ba dëgg am rek lépp mu ngi fii mais bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu gis nit di wax ci nit di wax ci nit wala nit wax ba ñëw wax il faut ñu poser lay question il faut ñu waxtaan ak yow il faut nga répondre il faut nga wax yow ci yan côté nga taxawee woon ba wax lii nit ku nekk da nga def erreur mais erreur bu jot bu nekk dafa am lu ko waral ñoo nekk fi nak bàyyi woon lu ñu japp di nekk ci panel yi di wax guddi ak bëccëg man dama daan wara dem liggéey du ma dem liggéey bu ngeen bu ma leen di deglu, ma wax leen ben affaire jugé na aéroport ma yéeg suma auto di wax ci panel bi billahi ba mbëkk mbëkk barke alcorane karim mbëkk sama auto mu mbëkk loolu yëpp lu ko waral ma ngi doon wax di wax wala may déglu wala may nekk di bindanti ci suuf parce que parfois dama lay nekk di wax ba pare ma damay jéem a xool message yi si suuf yan question lañ may posé avant may sigi rek ma dal ci benn borne mbëkk laa def tel mais kon bu fekkee ne loola dañ see nekkoon ba léegi nga la bu àdduna man yàlla sax dama jàppoon ne bu fekkee ne dafa yebal benn ndaw bu yéeg fii si panel bi war nañ laa mën a wax dëgg quoi. fii ñëwuñu fi di tagg maami kenn ñëwuñu fi di tagg kenn baaxu kenn ñun ñëwuñu fi di fi def kenn ku ne li nga def yow yaa def keroog bi nit ñi taxawee fii bëgg wax ndeygay lu ñaaw dama taxaw ma ne leen kenn du ko fi wax lu ñaaw kenn du fi wax ndeygay lan la dund wala lan la dundul parce que kenn ku ne li ngay wax yaa ngi kilo bëgg a feeñal liiburu ndeygay kon bu fekkee dañuy wax nañ wax ci ndeygay nan la tourné version ci Aziz Dabala la mu waxoon ak deuxième li mu waxaat nee na loolu erreur de communication la mais erreur de communication boobu noonu moom dafa dem gisante ak Nabou après si la wax loolu pourtant avant muy taxaw pour justice pour Aziz Dabala boobu gisanteegul ak Nabou Leye mais bi muy wax ne Nabou Leye c'est mon fils te maa ngi ñaanal mu génn fee mu nekk te Nabou waxtaan dem naa fa gisante nañ nee na ma nañ dalal suñu xel moom deful dara mais comme nous erreur de communication la mais gifé nous nous, mo jitu waxam bobu nous mu wax ci anniversaire Viviane la mais bu ñëwee fii si kaw nag ñuy waxtaan tamit nañ nañ nañ nañ nañ waxtaan quoi ñuy wax li nga xam ne moo fi nekk mais pas ay ndéyge yow lii nga doon wala lii nga doon wala lii nga doon parce que jarul ñu fiy tagg kenn fii tagguñu fi kenn buñ fii kenn rek lañ fi tagg mooy Aziz Dabala buñ ko naree xajamal ñu tagg ko fii buñ bëggee tagg nit dañuy dem taalala la panal tagg la man du ma du ma du ma tagg nit ku ma deful dara waaye du ma yàq deru tamit nit koo xamante ni doomu aadama la you know loolu laa ambassadeur rek def nga sa liggéey def nga liggéey bu rafet macha allah comme Ndeye Gueye yéeg na si panel bi te yàgg nañ bëgg mu yéeg si panel bi man tamit yàgg naa bëgg a waxtaan ak Ndeye mhm. comme temps bu bëri mais comme nee na moom amul temps tamit maman Ndeye Gueye maa ngi lay jaajëfal <laughs> merci beaucoup. El di jaajëfal waa panel bi yëpp. El bu demagum ma deux minutes. Ah, baal ma Dada nee na jël ko Aïda Dada boobu léegi moo ngi la moo la waaw envoyé na la maam lu ma wax lu ndaw rek. baax na. ok xam nga xam nga fii nii xam nga fii nii ñun tàggu fi pour tàgg maamu kenn comme ni nga ko waxee bi ma dugg see dégg nga ñu bëri ci ah, ñu bëri wax nañ ay wax yoo xam ne ay erreur de communication la mais Ndeye Gueye moom confirmé na loolu bu mu duggee dafa def erreur mm. nit bu def erreur nangu erreur kon loolu nice quoi. mais tay juste rek man plus expliquer comme expliquer parce que 8 jours de bi nous ko kon ko waxul kon man dan may ragal na premier jour bi jours na mais nous nangu ni erreur de communication te nil na parfait c'est que ni ak bu ko wo garaaw si parce que loolu ma wax noonu moom xam na xam na li ma wax bu ko wooy bu ko woo loolu amul danger ci moom quoi parce que moom Nabou dafa nekkon ci groupe am Nabou dafa quitté won sunu groupe nekkon ci groupe am moom nekk doomam kon mom man li foofu noonu dama ko xaw a comprendre tuuti rek parce que mis na nekk ci moom quoi waaw loolu laa la bëggoon leeral tuuti rek parce que fii ñëw yégaluñ fi kenn tamit pour di la xelil njar ngay naan sàmm ngeen. waaw waay. def. maa ngi fi. leen def. Ah, waaw. Zo man dafa am benn affaire bu ma xaw a jaaxal tuuti ci waxu ndeyge bi parce que ñun dañu nekk boobu ba léegi man dama leen ci fekk si parce que man neen mosuma dugg ay ay live mais lii daf ma intéressé tellement que mu jaral ma ma sacrifier sama lépp ngir lan. dooleel leen parce que nit ki soutien rek la soxla mais dafa am nit gis nga yo Samba Nguer yow fi nga taxaw bu fa artistes yëpp taxawoon kon weesu nañ fi bu yàgg ragal féete nag dafay xañ a wërsëg Samba Nguer fi nga teg sa tànk dawoo ci dara te góor yàlla macha allah nga dégg nga lu ne lu ne dégg nga ko waaye faale woo da nga xool sa digganteeg Aziz jël sa frère nga teg ko fa yow noonu nga doxalee Samba Nguer moo tax addina bi yëpp naw la ñëpp la bëgg ku la kooku wax ak yow ak ku waxut yow ñëpp la am fuñ la teg parce que dawoo ci yëfu Aziz bi dara loo ci am jël nit nag defe naa ne boo doon ànd moom ci dundam mu féete la fu ne ngeen di ànd di bokk programme bu ne yàlla suñ borom indi nattu bi ci kawam kon bu wanee ginnaaw war ngaa am beneen doxalin booy doxal sa diggante ak moom nga seet ci sa diggante sa borom. mais booy nit nit booy demee bay hésité ci benn affaire parce que la ngay def ñoru la bu la ñoroon dëgg dëgg dëgg dëgg di nga ni kii sama rakk la te lu sës ci yow nag dafa metti waxantuma laa koo xam ni bokk ngeen fu ne demandoo ngeen fu ne lu mu am bu dee dërëm bu dee ñaar dërëm xëy na tase ngeen fu ngeen ko mës a bokkee kon da ngay sédd ëllëg parce que nag bu fekkee nii la ñuy doxalee ci association danseurs yi wallaay azim ku ku yabu xalaat sa gannaaw parce que lii daal Aziz dama gis ko man seen association bi doxalee ko vraiment rafetloo ma ko te neexuma ku dul Samba Nguer nag ni mu ci doxalee man neexuma te sama dëgg rek laay wax te yàlla moo ma tiim parce que boo nekkee nit ki ci dundam ngeen nekk di deflante lu baax yàlla def mu ama anam bii mu génne ko àdduna kenn bëgg ko ndax ku sañoon tey kenn du la fekk sa biir néeg bee mbaa sa kër di la def jëfin ju ñaaw ji rawatina nag koo xam ne même bu ma la xamoon man nga nekk man sama doom man keroogee tey man ma seetlu analyse doomootuma ak yow ba yomal xiyaam parce que jëf ju ñaaw duma ko sakkaale kenn kenn diffamé wu fi kenn nag mais nit ñi seen bët ak seen xel rek la ñu am te li leen seen xeel may fa la ñuy jubali ci mais munoo yéen ngeen bokkandoo taxaw même jour bi affaire bi amee réaction bi ngeen gis xel teey même bu ma la ma ne la doom jooj dootoo ko déggati ci man mais damay def attention parce que nag lii de yóbbu Aziz man naa yóbbu keneen franchement parler man li ma gis fii ak ni ñuy doxalee nii nii nii ci live tey bi am na loo xam ni kàddu yu ci yu ci soqeekoo neexuma te damay wax dëgg rek te yàlla tax fii dëgg rek moo fi nekk ñun Aziz suñu frère la nekku ñu frère de sang mais yàlla def nañu presque frère de sang lañu parce que li ñuy dox ci moom ambassadeur yow yaa ubbi sa panel seeto yow nekkoo si yënguwoo ci aar mais risque bi nga jël ba ubbi ko pourquoi ñoom mënuñu lool waruñu xaar yow nga leen wax ñu ubbi panel moo ko war ubbil boppam def ko ci traayu bàmme la wan ni lii moom a tax di xeex ndax du Aziz kese bu ëllëgee keneen ku mu daloon ñu taxaw di ko xeex loolu mooy wàllu gor ci bi ngay ànd ak moom muy neex mais tey nga toog ba mu neex la ngay hésité ka defar su wut ku la boo bañee dëkk bi boo bañee ku la mere ma ngeen ma jéggal ci kàddu gi doo jëm fu nit ñi soxla nit nag dangay dëggu suñ la xamee dëggu da ngay wane sa dëggu ba mu jeex comme ni Samba Ngeer def Samba Ngeer mention spéciale kenn mënu ko wax dara ci fecckat yi man de man naw naa la miinuma la woon nag ci TikTok rek laa la mës gis mais naw naa la ci dese Aziz bi taxawaay bi ci taxaw ci dëj ba ba léegi Samba tàyyiwoo sonnoo bàyyiwoo fu ay mbokk Aziz fii ba dëkk waali dem nga fa Samba Ngeer yow Aziz amee lotoo ko dara dara dara dara wax dëgg yàlla buy jékkiwaatoon tey jóg ci kaw suuf yow Samba Nguer Aziz xam na taxawaay bi ko taxawal kon nag yow sa moroom yi ñoo war a xool ci yow exemple war a def yow ni nga def Samba ndax nag du question fit du dara yàlla rek nit ñun ñëpp di wax ci panel bi yàlla la ñu àndal amuñu fit yàlla moo ñu may mooñu ñu dooleel amuñu doole suñ borom lañ koy ñaan kon nag ñun ñi ñu taxawoo di ko jàppale Aziz ñoom la waroon nag ñoom ñi nga xam ne ñoom la bokkuloon milieu bi te képp ku ci dégg lu safaan ba ci Aziz war ngaa mën a taxaw taal sa live nga ne diw baat bi nga wax bu ci jamaat parce que lan dëgg moo fi nekk ñoom nu ñu am fit ba taxaw di wax ci Aziz ñun mën nañoo am fit ba taxaw dindi ko parce que ay nit kese lañu ñoom la leen wax loo ñun mën nañoo taxaw dindi dindi tuuma gi mais nga ne en tant que nit sax way la yéen a nekkandoo Aziz li Aziz la mais ngay dox vraiment nak man nak nag ma comprendre vraiment yenn yenn nit yi dal ngeen bal ma dal si fekkee mm, kàddu gi dëgg maa ngi jégalu. ma sit rek rapidement ma wacc dama bëgg siit rapidement rek wàcc wa dama siit rapidement rek s'il vous plaît s'il vous plaît c'est important baalal mako rek maa ngi koy toup di ko di maa ngi koy toup alors man dafa am lo xam dama ko remarquer ci panel bi et ça fait peur parce que man on a l'impression que ni tant que panel bi teguñu fi nit diko ko diko di diko wax ay ay ay bal duñu contane man man man remarque bobu la def et bu fekkee ni que esprit bobu lañu bëgg continuer wala ki lañu bëgg je suis désolé, mais on va pas continuer ci loolu man damay arrêter parce que li tax gis nga bépp information te limay wax ni je prends toutes mes responsabilités bépp information bi fi nit tek diko fi wax information bobu mom mo xam ba xam c'est vrai ou pas mais ñun dara leeru mm-hmm. ñu bu attention ay bakkar mo ngi panel bi mm-hmm. li fi nit wax yépp yépp amul kenn daf ko daf preuve sur parole bu fekkee da nga gëm sur parole nag da ak mm-hmm. attention parce que comment qu'on puisse dire ñun ñëpp ay jullit lañu. te mhm. yàlla suñu borom dafa am dafa am lu mu wax ci tuumaal nit mhm. waxal nit loo xam ne amu ci lu la leer fii kenn mhm. faralu fi kenn te ku nekk dee bii nii daf la naqari ba tax nga bàyyi si lépp jël ay risque di toog ci panel bi di wax mais impression bi ma am si tim commentaire yi et intervention yi nii on a l' impression que ni ñun li ñu ah. bëgg ma ñu fiy teg ay nit di leen xas ak di leen waas fii nag nit ñi fi yéeg sax nit ñi fi yéeg sax nag ñoo war a arrêté loolu bay la ma ma ko ne rek après ma wàcc ñi fiy yéeg ñoo war a arrêté loolu parce que ndéeg parce que ndéegee li nga wax dafa leer moom dafa départ ak ay questions yu leer nañ wëtal di ko posé ndéegee mu xamal nit ñi ne moom bi muy wax loolu fekkoon na bi muy ñëw tribunal fekkoon na mu dem gis léeg-léeg ba pare mm. après bi mu ñëwaatee dafa ne justice pour Aziz Dabala Mm-hmm. moom bi mu génnaatee waxal loolu moom nee na de communication la te pourtant ay nit taxaw nañ fii ne ndéygee dañ ko menacé ndéygee dañ ko jox xaalis et tout ça ñun mm-hmm. loolu dara ñun loolu dara leeruñu si et loolu suñu yoon nekku si moom suñ ko menacé bu ñu ko joxee xaalis loolu ça n'engage que moom mm-hmm. encore une fois nañu nañu nañu dellu si suñu xel yi gis nga nañu bàyyi ŋàññ bi ñuy ŋàññ doomu aadama yi nañu bàyyi tuumaal bi ñuy tuumaal goro yi loolu dafa war a arrêté panel bii nii bu fa nekkee ba nag ni si ay information moo nu fi andi ay nit di ko wax

di jigen di jullit bu fekke dafa tok fi di wax lo xam ne dara du ci deug mais loolu mom la engagé ñun engagé wuñu et loolu loolu en quoi ça nous fait mal en quoi la ñuy am lu ñuy yàqal ñun làq yakal ñu absolument rien du tout les da ngeen bëgg ñuy poser ni nga ay questions pour ay ay questions indiscrètes moo tax tey jii nii mu demee ni mu demee moom mu ñëw wax lim fi wax nek ay wax yo xam ne xel nangu nako même bu fekkee xel nangu ko mais mom loolu la wax da nga kay nangul on n'est pas la police on n'est pas au tribunal ba wara a pousser nit ki à ce que mu wax lo xam moy mooy li ñu bëgg a dégg ñun il faut mm. qu'on arrête il faut qu'on arrête désolé de parler ci ton bini manque maa ngi koy tub mais il faut qu'on arrête mm-hmm. les gars nañ dellu suñu xel yi nañu dellu suñu mm-hmm. xel s'il vous plaît on exagère ñoo exagère grave nañ dellu suñu xel non non attends Même ma tuuti rek maay wàccee may leen ma tuuti rek tam que gars dañuy wax ñu lay dagg ku wax dama lay dagg dama lay wàccee suuf dañuy respecté ñi ñuy déglu tamit bu ñu joxe nit bàyyi la nit bi di wax ñu koy ñu koy dagg parole bàyyi la mu nit pare ngeen soog yéen ñëpp di wax yëpp maa leen wàcce si suuf danaa ñëwal. ambassadeur ci loolee nekk. Jola ah. bëggoon fekk mais dafa tombé mu wàcc. jour jour xam naa mu ngi lay dégg mu ngi si suuf quoi. Ah, voilà mais Samba Nguer waxoon naa ko mu woo ma avant ma doon dem Paris waxoon naa la nga woo ma mais dégguma la. xam nga mhm. tamit. dama perte numéro Aïda. waaw mais tamit artistes yi bari nañu kooku laaj dina la ko jox. xam nga xam xam nga xeex loo xam ne dañ koy xeex pour suñu rakk Aziz dabalaa te tey fecckat yi kenn déggoowu ci loolu c'est impossible parce que tey Samba Nguer yow yaa ngi association des danses yaa ngi numéro Pa Moussa Sonko président mais yëkkati sa téléphone nga woo ko mais Pa Moussa ñun kat jaaxle nañu te yow yaay suñu président balaa may woo kenn yow laay woo dama bëggoon nga wax ak ñi fi nekk ñëpp ñu jéem a jàppale waa kër Aziz Dabala ñu jël avocat. mais bu fekkee ne kenn ku si ne da ngay toog di xaar ñu woo la su boobaa mën nañu xas artistes yu bari te fekk ñun xamuñu lu xew dinañ xam ne Aziz rey nañ ko metti nañu ndax suñu doom la suñu raq la mais yow mi nga xam ne danga cee taxaw bu mu sës muy sax xarit tey taxawal woo prési Pa Moussa amul problème boo nee ko kar wallaahi Aziz mu taxaw ci te ku mu ne jóg leen ngeen joxe yéen ñëpp ñëppay joxe amul ku dul joxe. parce que dañ né justice pour Aziz Dabala yow yaangi ci groupe association des danses mais lool dang koy deugal ngal len dama bëgg kat ñen génn ngeen jappalé Aziz parce que gis nga kat yi duñu dégg dañu dof dañ dof moy ko bo len waxul lo len waxul xamuñu ko ku nekk yaangi wut sa programme li ngay fecc fi ngay jëm say déguisement say programme non non da ngay yéeg nga wax ko xalé yi appuyé ñu japp ci Pa Moussa bo waxé mom xam nga ay programme dafa bari du xam. mais il faut nga taxaw ci sàmm nga dékkuma ko kenn man yow loolu yow laa ko dénk yaa ngeen numéro PAM sax woo ko nga woo ak ñi nga xool ndax nañ la fekk si wala déet. incha allah man loolu laa la ñaan ci paneel bi wool ma Pa Moussa Sonko nga ne ko kat dama bëgg ñu jàppale Aziz laa parce que affaire bi ngi yàgg ta amul dara loo xam ne ñu ngi ko ciy gis ñii bàyyi nañ leen ñii nee nañ ñu ngi fii doo comprendre lan la affaire bi demee. est ce que est ce que est ce am na ñu def ah mais man comprendre ma dara dara man affaire bi wallaahi dafa ma jëme kaw quoi parce que ngay jékki-jékki ñu ne bàyyi nañu diw bàyyi nañu diw bàyyi nañu diw boo xam ne xamoo fan la jógee mais mënuñu tëb ne jàpp nañu diw diw ci la bokk diw bokk ci diw ci la bokk mais jékki ñu naan bàyyi nañu jàpp nañu bàyyi nañu mais lan mooy cause bi mais deew Aziz Dabala nañ ñu wax nan la demee ak ki ka rey kan la mais nañu génn ñu wax parce que amaana ñun mën nañ ci bañ a wax mais bu ñu xam lan la ñuy souffrir suñu xol. ndax suñu nit la ta fecckat yi tey jii lii nii suñu der mi ngi ciy yàqu ah ku ñu wóolooti hmm. parce que kenn wóolootu sa moroom kenn comprendre lii nan la demee parce que lépp ci fecckat yi la wax benn fecckat a dee am na fecckat bu ci bokk fecckat bi génn na dugal nañu kii jàpp nañu kii mais kenn comprendre mais ñu leeral mbir yi suñu bopp yi tëju na yaayam mag la nelawutul nit ñu jàppale dimbali ñu sonn nañu Ndeye Gueye li ngeen koy laaj xamu ci dara dara dara parce que Ndeye xam nga ban genre la Ndeye dafa tëxet Ndeye xamul dara dara dara ni nga koy gis muy dem noonu noonu la xelam toll moom pour moom que am na ay raqam lañu ñi ay doomam lañu war na wax bëggul dara ñaaw mu wax mais wallahi azim ku ma tegal kaay ma teg sama loxo kenn fayu ko xaalis kenn jox ko dara kenn neew ko Ndeye Gueye lii man xam naa ci dara ndeyge buñ ko joxoon xaaliss yeen tamit Nol, nit day tok sax diko di xalat amna lo xamne ndeyge duñ ko xana ndeyge dina xalat suba bàmmeelam dina xalat digantem ak yalla alal bu mu jaral doomu adama tay Aziz Dabala tëdd am xar mo suba mu amna ay bu amun dom ñaan na am dom amna ay raq amna ay mag amna ñu dom lol du ci dugg te du ci def ci bopam mais Sénégal nañ ñu leeralal lii am tamit parce que ñun fu mu ne dañu affaire yi daf ñu dem ba jëlee ñu kaw artistes yu mag yi kenn duggul wax ci panel bi wax amul kenn ku jénn wax mais noppi leen ba kañ dañuy noppi ba kañ déew as Dabala dee na deena na amul benn artiste buy jénn boo xam ni taxaw na wax tey ñun liy gàcce la sax tey jii yéen ngeen teg seen panel ñun artistes yu nekk ci suuf ku nekk di ragal a wax lan la ñuy ragal lan moo nekk ci suuf lu ñuy ragal mais nañ ñu ko nañ ko leeral bokk ñu xam maa ngi jéggalu nag man sama wax des fois su tàngee day dëgër mais doy na waar maa ngi jéggalu bu baax a baax. jërëjëf Aïda merci beaucoup. merci Aïda na ndax man ndax man lii laa bëgg di dégg quoi. oh ndeysaan. tëb na. ambassadeur maa ngi lay ziar. man dama baal ma gis baal ma. gis nga bi ma ah. wàccee li ah, salaam wax ci laay ñëw li salaam wax ci laay ñëw hmm. que bu fekkee ne nit da dañ ko doon wax ne ñëwul ñëwul def na def na def na ba mu dikk leeral yoon hmm. la ma ñu teg ko ci yoon ñëwunu fi pour xaste ñëwulu fi pour téesante man maa wa de ku ma wax ay bal bu ma dajeeg yow te lang ma wax doy ma nga leeralal ma ne bo lii defuma ko dama lay jéggalu ndax dama koo tooñ lu leer laay wax am na nag ñu bind ci commentaire yi ci suuf maman Mawa tu m'as am na ku ko bind liir naa ko mais dérangé wu ma parce que man noonu laay doxee jaamu yàlla gi may jaamoo kus néew nun ko fay kenn parce que jàppoon naa ne li ñuy wax lu nu leer la comme ñu nag te kin doon waxal ñëw na. waaw waaw jàkkaarloo ñu seetal seetantal waaw wuy la na ma ndey gay baal ak wuy ma wuy ma barke Seydina Mohamed ndeysaan amul solo ñëpp mënuñu bokk bëgg ah, ñëpp mënuñu ñëpp mënuñu euh, euh, mm-hmm. euh, ambassadeur bal ma damay wàcc mm-hmm. ñëpp mënuñu bokk bëggandoo la am tey comme li gel boobu wax rek am na ñoo xam ne dañuy am ak yow règlement de compte wala da ngeen doo leen neex loolu mënul ñàkk ala kuli al day am dëgg dafa am yoo xamante ni man moom duma ci focus de trop nit lu ma wax baal naa ko lu waay wax baal naa ko parce que euh, am na yenn kàddu yoo xamante ne man duma ko may nit naa la dégg nag ngay wax rek garaawul amul problème mais man su ma nekkee ci live bi kenn wax ma fi lu ma warul wax war na dama koy tontu man sama làmmiñ damu sama poos te duma ragal dama koy tontu wax ko lu gën a pire li mu wax mais am na yoo xam ne bugguma fa yegg nit parce que am naa lu may daw tuuti nag te respecté naa ñi nekk fii ak ñi seetaan yëpp moo tax ma génn wàcc ndànk bayi len bañu wax ba pare parce que gel bobu wax na waa jooju wax na amul problème mais yàlla xamna li nek ci xol yi yàlla xamna li nek ci xol yi man wax du wax katu kessé de man sama wax day ànd ak jëf te sama Nguer xamna ni man sama wax day ànd ak jëf fami Aziz Dabala xamna ni sama wax day ànd ak jëf sama Nguer amna lo xamné expliquer wu ko ba tay te dinañ wootante yow ambassadeur man ak yow ak Samba nger ñu wootante appel à trois ma expliqué len lo xamante di ngeen xam dunduna ko ci moma yoy te ngeen xamu ko te wax te ŋaangu wax ko nit dafa am yo jarul wax ku ci am ak man règlement de compte nga la way bindal nga saaga nga xas nga wax lu la neex balna la ci xol bu seddu guuy jere ngeen jëf léegi kii léegi Ndeye Gueye oh dem léegi dem na ndax xam naa ne xam naa ne yaakaar naa dégg na dégg na lu Aïda Dada doon message bu Aïda Dada lancé quoi man mooy li may wax rek chaque instant Samba maanaam ñoom buñ ñoom maanaam ñoom buñ génnee rek def lii rek maanaam man daf may dimbali si benn côté quoi. yaa ngi comprendre daf may dimbali si benn côté. ndax ndax Aïda Dada wax na nee na ñun nee na ñun gars yi war a jéem Aïda Dada wax nee na gars yi dañoo bàyyi tekkaar bi génn wax ndax ndax maam lii day dem benn saa fecckat day yàq seen der day yàqu. Euh, euh, euh, bu dee ci cadre association bi li Aïda ah. wax. dinañ man dinaa woo président man. dinaa woo président association bi artistes yi dinañ génn gis nga man maa njëkk ko wax lu tax artistes yi génn ñu bi ma koy wax. ku nekk naan mhm. mawkul ku nekk naan mawkul pour génn di def sorti avant may ñëw Sénégal artiste ñu war a génn wax parce que Aziz liggéeyal lu ñu bari fii. c'est ça artiste génn doole. xam nga lu ma la wax li ay da wax rek laay wax association bi dañuy incha allah ñoom Oumou Sow ñëpp dinaa leen woo su ma ñibbisee oh. Sénégal dinaa dinaa léegi ma ñibbisi waali bi rek ma fi bàyyi incha allah léegi ma ñibbisi su ma ñibbisee ambassadeur yow dinañ déggante sama nger dinaa ko woo mu ñëw ba sama kër toog ñu waxtaan wala ñu dem ba kër président ñu toog ñu waxtaan

waaw nangul leen ma loolu quoi man dama am jëkkër. non lu ma tere xam nga waaw kay sama jëkkër mooy loolu quoi. merci beaucoup jërëjëf kontaan nan ah, macha man damay damay wàcc damay wàcc damay bëggoon barkeel gis gis gi xaar ma la gis. kii kan la gis-gis ma xaar xaar la. damay wàcc damay wax tuuti damay wàcc damay wàcc maa ngi man la Zo. El Hadj maa ngi lay delloo ziar naka mu. gëj naa laa gëj nañ gëj naa laa gis naka mu. wala dëgg la maa ngi pourtant pourtant keroog maa ngi lay nuyu ci biir live bi. xam naa boobu def ma si attention. naa xooloo ko woon dëgg la yaa ngi si jàmm. maa ngi cool alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. en fait euh, ambassadeur. dama bëggoon laaj rek parce que dama fi déggoon démb xaw ma barki démb ñu ne avocat bi dafa ne. Ah. Euh, affaire marché bi nañ ko teg ci suuf. bala ma am len lu may wax dama bëggon laaj ndax euh am ngeen ci euh, point bo len ci japp wala deul non non non la sec dañuy mars la sec dañuy mars. ah ok on confirme na ko ah. waaw le sept dañuy mars. voilà merci parce que man euh dama ci gis ne bu amee. Mm-hmm. dina dina dina tax am ñu am ben prox ndol bo xamante dina am ko genn yegle ne. affaire Nabou bi li ko waral wala amna na ku ku wala yooyu après dina leer. Mm-hmm. parce que buñu pas tekaral bi tekaral bi dafa yag mm-hmm. dafa warono warul woon egg exi si ba fii. li am amna euh ñu téye ay nit nit ñoo ñu euh enquêteur yi amna luñ ci wax mais mo ngi ci loxo juge bi ba léegi euh, defu ko ci waxu ko ci. ba tax na gars yi gis nañu Nabou lay génn xamuñu lu tax mu génn kon foofu askan wi mbokki Aziz ay nitu Aziz waa panel bi war nañ war a mën a taxaw def benn démarche boo xamante senegal Sénégal yëpp dañ koy yëg buñ ko yëgee rek gars yi dinañ taxaw dinañ am lu ñu leeral dinañ am lu ñu wax parce que dinañ xam ne lii askan wi ñoo ko soxla fi mu toll nii parce que mënuñoo jàpp nit xamaguñu jugé guñu ñuy génnee ba naan am na keneen ku génnaat am na keneen ku génnaat leer naag leeru loolu askan wi dañoo war a génn pour taxaw muy benn. ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne ay fecckat lañu fecckat lañu fàtt teg ci waali ñu am fecckat buñ jàppaale man de sama gis-gis mooy. ñi nga xamante ne dañoo war a génn ñu lenn rek moo leen tee génn te loolu du dëgg Aziz moo nekk ci dëgg parce que Aziz la faat mhm. ak lu mën a am ki nekk ci biti nekkul ci dëgg ki ñu faat fekk ko këram kooku moo nekk ci dëgg problème bi nag lii rek la kii faatu na kii moo ngi dund ñuy sóoraale ki dund nga ngir ëlëk sóoraale leen yalla ngeen bayyi loolu loolu leen ko parce que da ngeen ne fatuna na ki dundu peut-être amna lu mu leen a jëriñ bu leen xol loolu xol leen yalla ak ki ñu togn fekk ko bir kërëm fat ko te kenn ku ci nekk ci lu mu dundoon ak yeen kon tey li gën a rafet mooy panel bi ñu mel ne yéen yéen ko waroon def defoo leen ko da ngeen war a yéen ñëpp ngeen mobiliser wu taxaw ànd ak ñoom pour loolu nag c'est pas trop tard dañuy marche le set képp koo xamante ne fecckat la amoon ak connaissance amoon ak lien ak Aziz defal dara Aziz wala Aziz Aziz defaloon la dara jotna nga wane sa bop jotna nga delloo Aziz parce que Aziz tey jii fi mu tëdd nii rek la soxla ay ñaan ak ko leralal ginaawam lol dafa bok ci neew leral ko ginaawam ba ci mirage sax dañuy wax ne neew bi genn aduna pour mu dal yi dëgg pour mu nekk ci jàmm dëgg lépp lu mu bàyyi ginnaaw lañ ko war a rafetal ba mu rafet kon nag lii da cee bokk ndegam lii da cee bokk te ñun lool rek lañ ko desel te yéen aussi lool rek ngeen ko desel jug leen ngeen jàpp ci combat bi sol tiset yi comme ñëpp déranger wu comme ñëpp. def déplacement ñëw fi ñu ko war def ko ñëpp gis leen xam ne yéen ñii kat yéen a nekkaloon nekkoon ak Aziz fii ci àdduna Aziz dem na ngeen taxawaat di ko ku ci deful loolu deful li la war Samba nag wax dëgg yàlla gàcce ngalaama gàcce ngalaama parce que depuis au début lay gis ñu lay taxaw de gauche à droite. te ñu war a def li nga def dafa dafa bari sa ginnaaw te defuñu ko kon wax ji wax ji yëpp li ko waral mooy li ngeen war a def te defoo leen ko li ngeen war a wax te waxoo leen ko moo waral wax ji metti kon nag lii benn défi la boo xamante ne yéen seen jëm bopp war ngeen cee gëstu taxaw jappelé sen bop lay wax duma wax jappelé Aziz de jappelé sen bop parce que kenn ku ci nek amna am nga bor bo wara a Aziz kenn ku ci nek am nga lo wara Aziz d'après ni ma déggé sen histoire Aziz mo nekkoon ki nga xamante da ron tok ñu signal ko contrat wax nako ko du ben du ñaar mu gis ne fi 3 personnes rek fa wara mu yobu fa 10 personnes lolou ku bax rek mo koy def. kuy sóoraale ay nitam kuy sóoraale ay mbokkam rek moo koy def toog na mu ne man dañ may woo ci benn affaire boo xam ne man dong bu ma demoon lépp sotti mais dama naan déedéet dugal leen ma ci ñii dugal leen ma ñii dugal leen ma ci kon kooku da ko war a delloo njukkal àdduna nag fii àdduna la rek mais àllaaxira gën jëm wala lépp di xewe kon ku yabo yi ni lepp lo fi liggey nga liggey fi lu rafet ngir alakhir gën jëm ma ngi jéggul nag le set moy marche bi yalla ci yalla yobok ak yalla bayu ñu fi ñu tal ko fekke ko te ñu am ci ndam ndam bi nak moy ñu yuuxu ba ñëpp dégguñu press bo leen yaakar muy fu mu doon yéegtu woo leen waa Europe ak fu mu mën a doon nañ ko def en direct mu doon live bu kenn rek live de nañu bari na ñëpp live mm-hmm. live boobu nekk en direct xam nga lan la mooy problème bi bétail médiatique la gis nga ñaata personne ñoo nekk ci euh, euh, panel bi nekk Europe kenn ku ci nekk ubbil sa live jour boobu ku musul live sax sa live jour boobu nga nekk mhm. nga woo kenn wala kenn ñu envoyé la ko directement nga koy nga def ko en direct bu ko quarante personnes defee avec euh, chaîne télévisée yi nekk fii euh, Sénégal rajo yi tout ñu ko war a dégg ñëpp dinañ ko dégg gis nga la waaj waxoon rek nañu yuuxu comme béy nit ñu wara dégg déggu ñu man ma ngi jéglu bu baax loolu la amoon pour wax ça fait l'occasion mhm. sambang ngi fi mhm. Aïda yéegoon na fi mhm. dégg nañ loolu nañ ko jàllale ci fecc kër yépp ma ngi jéglu bu baax a baax a baax dëgg la kàddu na trop li laa bëgg a dégg quoi moo tax ma ne leen man sa instant li lay bëgg di dégg maanaam ñu woote jénn wax ndax ndax ndax combat bi foofu la toll léegi ah foofu la toll ah léegi bu ko defee léegi xam naa kon léegi nañ jéem a dalal euh, pul la pul la pul pul pul la après après après après kii ñëw roqee yi ñëw ah pul pul la ñëwal tëj sa micro pul pul la. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa pour pour man li ma doon nar a wax yëpp gis-gis wax na ko de man booy ah. gisoon mu bëggoon yëg noonu Aïda ba mu fi ñëwee ak kii. Mhm. Ndeye Gueye. mais yow noo jàngatee noo jàngatee wax Aïda ko jàngatee. Aïda lu Aïda kañ man damaa kontaan man dama ko mujj may fuloor sax parce que lii mhm. lañ doon xaar si ñoom li kese lañ doon xaar parce que boo demee ba nga xam ne yow kii ki nga doon jëflanteel la mu génn àddina ni ko gis-gis waxee sànq. buy waajur buy xarit buy àndandoo dëkkandoo ku ku mën di génn àddina koo xam yow xam nga ko bu génnee da ngay toog di ko defal ay ixlaas waaw bu dee nag koo xam ne na dañ koo bum surtout si si demin gu ñaaw gi amoo lu du yow li nga mën a def mooy nga jóg mu jàpp ci ndax mu tàlli boo déggee ñu naan kii bu dem buñ ko miraasul du tàlli buñ deful nii du tàlli buñ fayul bori du tàlli assis nag bor bii lañ ko yoreel lii mooy bor bi Aïda Dada li mu wax lu jaar yoon la ne dañoo war a jóg di félicité tamit ki Ndeye ci lim fi ñëw wax parce que wax moom wax daanaka daa neexul ni ko salaam waxee rek lim fi wax loolu kese nga mën a jàpp ci nit ki comme que euh, nit ki moom lii la fi waxoon moo ñëwati toog ne la nii da daa erreur la parce que nit nag moom ak nit ki noo mën di toll ba yëfi julit mooy nga xam ne def nga erreur nga toog ne def nga erreur wax na erreur de communication la Euh, Samba Nguer nangul ko ko ñun ñi war ko ko war a nangul. Mm-hmm. comme que ñoom ñëpp nag ñëw nañ wax wax ju rafet ji. dañuy wootante dañuy woo Samba Nguer dañuy bu ñëwee dañuy bottu ci ginnaawam toog dem toog wax ak moom benn day woo euh, monsieur le président amuñ lu dul wax euh, kontaan ci kontaan kese lañ ci mën a am. li mu fi waxat li mu fi waxut man far man daal li mu fi wax laa mën a téye man te te ci loolu laa mën a jàpp. gor dëgg nag mooy lii parce que boo demee ba nga xam ne yow li nga defoon jaaduwul gis ku la teg ci yoon sa rakk teg laay fam nga ne kii sarq la. te war na la mën a woo woo téléphone mais teg na la ci live bi wax nga fi say dëgg ñu jàppal la ko ba leneen feeñ man noonu lay doxalee man du ma jugé nit ci la ma xamul keroog bés ba ma toogee ba ba sama bàmmeel jegaa jege naayoo sama loxo bi damay war a xam ne li ma fi li ma waxoon ak li ma waxoon nit lu ma leer lay doon kon nag aw ma dara lu dul wax leen ne leen daal jërëm leen ci liñ fi yéeg jërëm leen ñi tam seen wax te di di leen séentu nag la set bii nag man laa gënoon bëgg a sax bu dee ñoom nee na ñoom ñoo ngi xam naa ne ñoo ngi France. buñ mënee ñëw la set lu luñ mën a jàppalee ba la set ñu xam ne ñu gis leen ci jàppale la set moom xam naa parce que waali si lay joué ñoom da leen di fekk France ba léegi mais buñ mm. mënee ñi nga xam ñu ngi Sénégal comme que ñoom ñoo leen njabootoo ñoom seen ay doom lañ seen rakk lañ ñoom ñëpp ñoo bokkoon aar bi ñu fexe ba wax ak ñooñu niñ mën a jógee ñëw jàppale Samba Nguer ak famille Aziz ak ah, Waali xam ne ñu dox lii dox dox bi dama lay gërëm nag ambassadeur parce que démb toogoon nañ ba yaakaar ne marche bi du am moo taxoon na yéegoon sax di laaj ndax am naa dina dina continuer déet di la comme que famille bi dañ ñoom niñ ko doon gi ñoom avocat bi moo leen waxoon leneen ba xaw leen a ba xara naxas nar nar ko nasaxal daal ne leen nañ nañ xaar ay yeneen jour a yeneen jour boo xam ne date amul li ko Samba Nguer waxee démb daa leer nañ te Samba Nguer a ñeneen ak ñeneen démb wax nañ ko fi ne nañ ba yow ambassadeur nga wax ak famille bi wax ak maire bi bu ko defee la set mën a continuer di la ci gërëm nag parce que la set ñun ñu bëri dañ cee am yaakaar te dañ dañoo yaakaar ne bés boobu buñ ko génnee lu bëri dina dina dina dina gis yeneen beneen doom tamit daal waaw jëla si gërëm nag moo taxoon ma man la seet bi daal fi mu ne nii mooy sama combat koo xam ne hmm. jàpp nga si war nga nar nga si jàppa wala wax nga leen di si jàpp man dama lay hmm. gërëm di la félicité parce que te xam ne ñun hmm. loolu fa fa lañ fa foofu daal comme dina feeñal lu bëri te dina ubbi yeneen buntu tam yoo xam ne euh, li ñuy yaakaar incha allah dina am incha allah rabbi jërëjëf di la gërëm léegi taxoon ma yi merci beaucoup ambassadeur jërëjëf roqe roqe ñëwal ah après góor yàlla xam naa ni wala wala góor yàlla no après après waaw maa ngi leen di hmm. waaw ma xaar kon waaw ambassadeur maa lay ziar ñu ngi leen di ziar bu wér ngi ziar ñu nekk si kaw ñëpp ak ñu waaw ku nekk ku si nekk maa ngi lay jox sa wàccuwaay. Mhm. di la nuyu bu baax di la jaajëfal. Mhm. donc. tey xam naa ni kàddu bi du gudd. dama koy mhm. dama koy gàttal rek. Hmm? ndax defe naa presque lii na ma sama xel bi lu ma bëggoon génne pour waxoo daanaka salaam wax na ko ak gis-gis. ak euh, Aïda Dada suma juum la. waaw ayda dada moom laa mujjee déglu mais wax na fi wax yu rafet wax na fi waxu nit aussi hmm? ah. donc noonu la ah. tey wane na boppam wax na aussi loo xam tey jii ni vraiment nit ñi yëpp kontaan nañ ca ah. uh-huh. donc kàddu gi du gudd dama koy gàttal dama koy gàttal lool ndax salaam wax na lépp gis-gis uh-huh. aussi wax na fi lu rafet donc vraiment kàddu yi rafet naa uh-huh parce que man gisé sank wax ma dama don déglu rek parce que man mën naa toog lu ma minutes sax di déglu nga xam sumay wax na xam lu may wax comprendre nga hmm, hmm. mais defe ni affaire bi sax sujet bi du won dey gay hmm. man yaakaar naa ni affaire bi si mbirum marché bi nañu waroon wax xool artiste ñu dajaloo doon benn ñoo xeex justice pour Aziz Dabala ak Boubacar Gano Waali bon ay wax nag génn na fi ah. Uh-huh. bon parce que tey defe naa ni tey bu man yaakaaroon naa ni tey jii nii bu fekkee dafa nekk benn mbir boo xam ni bon yéen xamante ngeen seen biir. ci uh-huh. sama xalaat bu gàtt. defe naa ni kon lii lépp sax jaru ko woon ndax tey ay doomu aadama bu ñu nekkee tey ba xamante ba di déggante donc defe naa ni sax mënoon ko mënoon ngeen ko lijjanti bu yàgg ci suuf entre su ko defee sax li xew nii du fi jot a xew. Ah. xaw ma ndax yaa dégg fu may waxee. Uh-huh. voilà ndax bon day gay wax nañu dégg ko ah. uh-huh. waaw wax nañu dégg ko donc te bañ ko déggee aussi ñun tamit def nañ si ay jàngat lu dëgg. Uh-huh. donc loolu peut-être après bon di ngeen ko lijjanti seen biir ah. nu mu ko waxee. mais nag man li Aïda Dara wax rek man dama koy appuyer wax na fi lu lu lu rafet sax wax dëgg yàlla. di ko nuyu bu baax Aida Dara diko ko ñaanal jamm ah di ko wax ni cadeau mi rafet na waaw loolu la daal ambassadeur parce que man moom wax dëgg yàlla tey moom bugguma sax wax lu bëre parce que daanaka ndey gay aussi lim fi wax leer na parce que xam nga panel bi boo ko taalee teg ko fii nii warul nekk panel boo xam ne que dañuy accuser doomu aadama par force loolu sax bu amoon kon doo fi gis kenn ndax fii nii ay nit dëgg ñoo fi ñëw di la seraan di la déglu ah. ndax nit ki aussi mënoo ko accuser lu mu deful. te amu si ay preuve ndax nit ki bu ñëwee tey justifié wu wax ne nii ak nii la demee moo tax ma def nii kooku waroo ko dugal si dara di ko taqal naa ko par force da nga war a def. du hum. donc salam parce que panel bi dafa panel boo xam que ay analyser mais war ñu indi kenn di accuser wala di wax lu mu deful tamit du du yoon ah. hum. donc moo tax daal di mais loolu moo wax noonu parce que fii nii war ñu accuser kenn ndax mbili ji ba mu wax ji mais ba mu ba mu demande panel ñun gis nañ fi beneen changement bu doy waar. Uh-huh. mu jaaxal ñu bëri nag. mais loolu après bon peut-être du waxu léegi donc ñun nañ nous si waxu marché bi ah. Uh-huh. ñaan justice def liggéeyam dëgg gi feeñ. Uh-huh. Boubacar Gano ak euh, Aziz Dabala fu ñu tëdd yàlla na suuf fooy seen kaw yàlla na yàlla xaare àjjana firdawsi yàlla ñu yeggale seen ndaw àjjana devons yàlla yërëm leen tabal leen àjjana te ñuy rëccu lu def si àdduna. di ñaanal famille Aziz. ak Boubacar Gano yàlla na yàlla may xolu muñ. amiin ñu fi loolu ba ñu ñaanal seen doom yooyu noonu. si barke Seydina Mohamed. waaw kàddu gi fii laa koy yemale rek. Mhm. ba beneen yoon rek incha allah ma jox. non beneen yoon la ah non non boo déggee mal la beneen yoon ma maanaam waaw ba si kanam sax. ba si kanam rek ba dañ laa teg tànk. sax comme que dafa nek affaire bu sérieux donc dañu fay ah. gàttal rek di gattal cadre yi rek jox ah, ñeneen yi waaw man ma ngi si suuf wala waaw ma ngi suuf rek may keneen mu yegg bu ci xajere rek ma yéegaat façon ma ngi si suuf di tabote ah, ambassadeur ma ngi lay jaajëfal am lañ jàmm rek maa ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi lay nuyu bu baax baax ha ah kàddu yi rafet na trop macha allah ñëpp maa ngi lay nuyu jaajëf jaajëf jaajëf ak ki roqee roqee ñewal léegi après léegi man Mamadou Ba Mamadou Mamadou Ba soxla na ci kaw laaj ak Aïda da yaakaar naa la guerrière so mënee wall Aida wool ma ko waay wall Aida wool ma la guerrière xam naa yang yang yaa ci laaj na nuyu na len yeen ñëpp di kontaan tamit wala gaay yi nek ci souf ha wala princesse fekk man nga ma wol ayda nga nak dama ko soxla quoi pour mu ñew si live bi ñam luñu waxtan quoi ni Mamadou Mamadou men Mamadou Ba ah buñ ko mëne partager la dañ mako partager la dama dama bëgg ñu waxtan tay lii ñuy dem ci le sept bii ñuy dem nii ñu waxtaan ko àdduna gépp déglu ñu ñu waxtaan ci ah loolu laa bëgg ñu wax débat si ñu débat si loolu noonu quoi ay te ñëwal bisimilah waaw nuyu naa leen bu baax ambassade sànq sax yéegoon naa yéego yéegoon naa sànq mais daal mm-hmm. instant yi daal mun naa ne euh, comme déggee wax na moom wàññi na lu baree bari tension yi man moom mere woon naa ko trop mais nag jeex na tey mm-hmm. léegi daal luy wax ji li ñëpp wax mooy dëgg nañu wax daal ci waxu la set bi incha allah mars bi ndéygee nag li muy seddalee suñu xool mooy marché bi mu taxaw ci donte nekku fi mais am na baat am na téléphone am na whatsapp am na numéro nit ñi lépp lum mm. ci mën ci ñu mu mën a yabal ci ñu mu mën a booleeg nit ñi ñu ñëw nañ ko def parce que léegi nee nañ boo amu tànk pour dox am nga téléphone te téléphone léegi day dox le tànk di dox waaw nañ génn nag ñu taxaw ñu xam ne Aziz Dabala bu dee ñun ñi ko xamul ñii sax xam ko nii ci tele kese kese kese sax ñun duñu bàyyi mu sedd masuma ak ñoom ñu bokkaloon milieu bi te ñoom ñoo ko wax ku ci nekk nee nga Aziz am na fu mu jaar ak yow kon Aziz diine leen teraanga man sama xalaat euh, moom ndéygee waru woon xaar sax ñu ne ko dañuy mars wala nii tey moom waroon na koo préparer avant def ko bu yàgg sax mhm. mais comme defuñu ko tey ba lii am na tamit yàlla def na mu yéeg ci tombeeg lii te nekku fi ñu ngi ñaan mu def lépp lu mu war a def képp ku bokk mhm. war a bokk ci lii na ñëw ndax nañ waxante dëgg ku ci nekk yaa taxawul kenn sexalu la lem nga ni asi séq naa man lii ak lii sa doom sa rakk la wala fekk na ma fii wala woo naa ko fii wala fajal na ma soxla wala yónni naa ko kon nañ leen fay nit ki borom te nit amul noo koy fayee borom lu dul mu jile teraanga nga fay ko ngor mhm. nañ génn ñun ñëpp ñu taxaw ci la set bii parce que lii mhm. ñoom waruñu woon xaar sax nit ñi di ci wax ñoom ñoo ko waroon mars tey yow da ngay mhm. xool bu mbër yi amee problème yow xoola mbër yi rek bu ñu amee problème ñëppay génn ñëw su mbër yëppay génn soutenir seen morom mbër dégg nga bu woykat amee problème kon normalement ñëpp a war a fecc feccikat ak woykat ñoo bokk milieu bi du dëgg kon tey man yaakaar naa tey lii yow yow mii ngi yow li ngay def nii keneen ak keneen di ko def tey ñoom la waroon tey jii wóor na yàlla combat bi ñoom seen combat ñoom feccikat yi ñoom woykat yi képp kuy yor micro képp kuy fecc ñoom la waroon tey lii yow li la war nii ñoom ñoo ko waroon njëkkee ñun ñu ñëw fekk leen ci mais comme ñoom defuñu ko tey ba ñu yedd leen ñoom yay nañ leen te waruñu woon nangu ñu yay leen waaw parce que lii ñoom la waroon njëkk njëkk njëkk njëkk man instant yi de bu ñu ko defoo dootul amati sens man sama gis-gis ndax ku nekk ak sa gis-gis ndax fañ ko fu mu ñoree foofu lañ ko waroon defee ndax mbéjum mm-hmm. kanam borom ma koy faj te fa mu ko waree fajoo mooy fi tàng-tàng ba fu mu amee fa lañ waroon fajee loolu mais ñu toog tey toog di seetaan di seetaan ba nit ñi di jóg ah yow nga sonn ci ñun tam ñu ñëw fekk si la di la tamit ba ñoom ñuy ñëw di dugg tey di xel wax ku nekk da nga juum ak damaa non man su ma sañoon avant lii de am ñoom ñoo warul njëkk a taxaw wane seen bopp bu dara ñu xool ni ñoo bokkoon milieu bokk group te Ndeye Gueye nee na ñoom dañoo bokk groupe kon ñoom Aziz Dabala ñoom ñëpp bokk nañ groupe bu duggoon ci groupe bi ne leen nekkuma fi waaye am naa droit ñaan leen dara sant leen dara ngeen def ko te ngeen ko gànt wallahi la set ñoom ñëpp ay jóg lii baat bi su ko yëkkati woon rek ñoom ñëpp ay jóg ñun ñii di wax nii di receveur ñun bu dara xewee ci chauffeur ci receveur yi muy chauffeur yi ñun dañuy jóg mànkoo xeex ko ba ñuy grève fii gis nga oto yëpp a grève dañ ko manko kon tey bu ñu laalee seen ñoom ñoo war a njëkk a jóg waruñu woon xaar sax ñu naan leen jóg leen waruñu woon xaar sax ay ay avocat di leen njuuj wala ñu leen di njaaj wala ñu leen di dugal ci lu ñu xamul non non ñoo waroon tey taxaw nekk seen avocat bopp taxaw Aziz Dabala mu neex mu naqari ñu menacé leen la bëgg nit sooy ànd ak moom danga koy won ngor ba mu jeex nekku fi waaye du ma gën a gore lépp loo ma jiite teraanga lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw dinaa la ko fay mhm. fay bi nag du question alal du question dara lu dul mu ñëw mu ñëw taxawu seen doomu nday soutenir ko mhm. ay wàññi tey wàññi tension bu bari parce que ndéygee tey ba mu waxee wàññi na tension yu bari man ndéygee dama ko musoon a bëgg mais yàlla dafa def ba mu defee communication ne Aziz justice Aziz man damaa mu demaat waxaat leneen ma mer tey nag wax na giifal nañu mais lii tax giif bi gën a giif mu seddal suñu xol ñun ak ñu koy yëgagul li mu wax nii ñëpp na génn jàppale nit ñi vocal ci groupe yi wax ci groupe yi ñëpp génn ñu ñëw soutenir la sat Aziz Dabala ak Waly te yàlla rek tax nag ndax fii lu fi waay leb la ëllëg moom lañ lay fay kenn du fi ji lem di am kaani mënul nekk da ngay ji kaani am kaani maa nga ji lem am lem Aziz nag ñoom ñoo ko waxal seen bopp kenn saxalu leen lem séq naa ak ñoom teraanga lebal ne leen terang ànd naa ak ñoom ci ngor ba tey lii am am kon nañ ni ñoom ñëpp lu ñu mën ak lu ñu mënul ñu def ko bu ñu amoon xew tey nekkuñu fi dañuy woo seeni nit ci vocal ak audio groupe kon tey nañ def loolu taxaw Aziz Dabala ci la set bii ñu xam ne ñoom tamit ñun ñu jàppale si leen fekk si leen xam ne kon xeex bu ñun ñëpp ko xeex ñëpp la metti affaire yi am doole président yëg ko ñeneen ak ñeneen yëg ko mun ñoo jàppale ci loolu ñoom bu ñu génnul ken du génn ñoom ñoo war a génn kon nañ génn ndax ñëpp ñi nga xam ne yëguñu ko ñu génn wala ñi nga xam ne sawaruñu woon ñu génn man su ma sañoon loolu lañ koy doxalee bu dee nag damaa waxee lu maa ngi jégalu nag xol laa waxee sama xol metti na parce que bëggoon naa dégganteeg ndey gay ma mën a poser ko question ndax nit boo nee sa doom la sa doom lu mu métti métti métti métti booy dee sax sa doom jooju na la rey ci kaw ngor ba lu mu métti warul xaar sax kenn naan ko waxal wala ñëwal wala fekkeel ndax ci ñoom la waroon a jiitu maa ngi jéggalu waaw salaamaaleykum. waaw léegi wuy leen ma waaw waaw léegi kii anam kii roqee roqee wax na lépp ma ah. Ya karena ni kàddu yi trop macha allah deg dégg nañ kàddu yi la guerrière nee na mom moom Aïda mi ngi ñëw dans minutes ah, la guerrière ah. léegi mom Mamadou Ba la guerrière waaye yaa may dégg. Aïda mu ngi ñëw dans cinq minutes. dégg nga dafa xaw mu ngi ñëw léegi bu ñëwee rek dina def demande. ok moom Mamadou Mamadou tamit bu mënee ñëw ha ah, Mamadou ha bu ko partage live bi. te damaa damaa yaakaar damaa bëgg tey ñu waxtaan après si marché bi quoi lii gars yi ay ci ñëwal na gars yi ñëwaa ah. ayca bisimilah laa gën yéen merci ah jërëjëf ayca ayca kii zéro zéro zéro mu kii bi ah. ma ñëw rek jox gars yi parole. mam mam mu kii suuf rek ok. waaw amul problème. poivre poivre bu fekkee yaa ngi fi. poivre bu fekkee yaa ngi fi mën nga sa micro wala wala soxna soxna mi nekk ci kaw soxna soxna Diagne. soxna jaañ soxna jaañ bu fekke mën nga aysata aysata sàll salaamaaleykum waaleykum salam wa rahmatullah naan la ngeen ci jamm ñu ngi sant yalla bu baax alhamdullilah maa ngi jégalu bu baax dëgg la tamit euh, xam nga man ka daanaka dégguma olof bu baax waaye dafa am ay kàddu ñoo bëgg a sànni rek. Mm-hmm. Aziz xaw ma ko te man duma seetaan kat télé waaye bi mu gaañoo laa koy soog a ràññee maa ngi mel ni ki ma bokk damaa bokkal affaire bi def ma soke yàlla xam na ko liñ ko reyee moo ñaaw. jëf ju ñaaw bi ku ko munti def yàlla na ko yàlla weer ci bak Seydina Muhammad allo. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg soxna si metti na ma torop. Mhm. waaye ba tey may wax rek. ñu mu bokkaloon kii ambiance di def ak ki bi kii lu mu wax rek chanteur yi. ak chanteuse yi waroon nañ cee jug depuis avant tey waruñ ko booloo bokk ko waa imaginer man man maa ngi ni bokkul ak moom dara xaw ma ko maa ngi koy soog a xam ci net bi metti na ma sakatuma ku ko jur wala ki ko gën a jege wala ay mbokk wala ay xaritam nan lañ mel ak moom waaye yàlla na yàlla weer ci barke Seydina Muhammad maa ngi wàcc nag jar ngeen jëf wàcc ci suuf tapote jaajëf soxna Aïssata Sall ñu ngi lay koote kàddu yu rafet lañ ko bu baax a baax di la di la jaajëfal yàlla euh, xam ne def maa mer. dëgg la tooy na torop torop torop nit ku ne na nga xoole sa mag rek wala bu nekkoon sa mag wala bu nekkoon sa doom. boo jëlee place boobu nga féetale ko sa bopp rek di nga xam ne affaire bi dafa metti te tamit li ñuy wax génne nañ jiw bëgguma tudd ay yenn tur yi mhm. ñoom wax lu leer ñun ñi ñun ñi fi nekk ci sonn ba bëgg a leer waaye boobu ba tey kenn du wax ma sàmb lii moo xew lii moo xew dara leeru ci laa daal maa leen nuyu ñëpp waaw di la di la jaajëfal di la jaajëfal sincèrement parler ay sata euh, di bokk ak yow naqar bi rek waaw di la jaajëfal di rafetlu bu baax a baax a baax sa intervention jaajëf jaajëf jaajëf soxna bu fekkee yaa ngi gaaw bi micro soxna allo soxna salaamaaleykum soxna aca euh, nday nday nday madame Bonheur salaamaaleykum madame Bonheur mën nga ubbi sa micro madame allo madame Bonheur alo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam user. jaajëf waay maa ngi leen di ziare. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. ma di kontaan lool ci seen waxtaan bi am na solo macha allah. macha allah macha allah may wax dëgg yàlla li ngeen def moom incha allah bi yàlla fay ndax ku leen dégg xam ne yàlla ngi liggéeyal yéen a def liggéey bu rafet bu mucc ayib boo xam ni képp kuy jullit te bëgg lu baax rek bañ bon. ay naw la dina leen naw yéen man naa ne gàccaangalaama lii ngeen def bu leen neexoon ngeen ko def waaye nag bëgg seen bopp bëgg lu baax di xeex injustice moo tax ngeen taxaw taxawaay bii ngeen koy def waaye nag li ñaan rek mooy yàlla mi xam mooy fay te comme fay kontaan yéen ñëpp yàlla na leen fay euh, les danseurs na comme ni nga wax ñi fi nga yi. mooy ndey gay bi wàcc léegi ñoom ñoom léegi quoi ñoom tey lii ñoo ci waroon a jiitu loolu mooy dëgg maanaam bu fekkee dañuy waxtaan rek nag tey dëgg rek nag nit ñi bëgg dëgg bëgguñ leneen lu dëgg lii ngeen def ñoom ñoo ci jiitu ñoo ci waroon a njëkk ñëpp nekk ca kanam yéen ngeen nekk ca ginnaaw kon ñoom du ma defuñu mais seen liggéey des na. Samba Ngeer nag dama koy dama koy dégg muy wax di gis dugg kooku bokku ci waaye ku dul moom rek ci danseur yi man yaakaar naa ne sa sa des na sa liggéey des na waaye nag xëy na ah juum te du ñàkk ndax ay nit képp lan te doomu aadama mooy juum waaye nag comme yàlla dogal na tey jii ku mel ne dégg yi na ci kaw léegi wax lim fi wax ñépp dégg ko am question yu ngeen ko posé mu ni peut-être erreur la quoi rendre ci compte d'accord mais na ko nangul waaye nag buñ ñu ko nangulee loolu maanaam pour ñu mën a gëm ne li muy wax dëgg la pour ñu mën a gëm ne li muy wax lu nekk la kon à partir d'aujourd'hui day taxaw takk tubéem ànd ak yéen ci xeex bi dafa war a takk taxaw ànd ak yéen ci xeex bi lépp loo xam tey ji aaju na ko ci loo xam si war ngeen ko def. bala ngeen ko woo mu ñëw loolu mooy mën a tax ñun ñu gëm ni li mu wax dëgg la wax nag dafa yomb quoi wax ju rafet ku ne ku ne mën na ko ku ne mën na ko wax rek dafa yomb quoi ku ne mën na ko man nag wax dëgg yàlla xaw ma ci kenn ñoom ñëpp yàlla rek mooy tax may wax du ma jugé kenn lépp lu ma ci wax rek su ma dee mën naa ko lay suñu borom ndax muy ñi ci panel bi. mu ñu xaw ma ci kenn man yàlla rek ma ñor te it dëgg fu ma fekk dama koy wax même bu ma doon faatu dama koy wax kon liy dëgg mooy lii nga nekk képp koo xam tey jii dëgg na leen te bëgg te bëgg liggéeyal yàlla na ci jàpp ndey gay nag am na voix leer na ma ni bu ko neexee li ngeen bëgg dina gën a réussir ndax Sénégal xam nañ ko. comme nag yéeg na wax li mu wax Ndeye Gueye bu fekkee yaa ngi may dégg nga gën a jàpp ci liggéey bi ci groupe nga bokk ci say xarit ci say am di jàmm ci ñoom ambassade képp koo ci xam ak lépp loo xam ne def rek bu la ci kenn jiitu soo ko defee day ñëpp dañ xam ne li nga wax dëgg la tey yaakaar naa ca kanam ca kaw nga jëm waaye nag bu dul loolu wax ni rek bàyyi day yomb. maa ngi dégg léegi léeg nag euh, peut-être euh, na exemple xaw xaw xaw a jaxasoo tuuti quoi xam nga nit bu yéegee faaw ñu posé ko question loolu wàññiwul dara dëgg la du ay policier du ngeen tribunal mais nit nag bu yéegee ci kaw te nit ñi yaakaar ne ki ñi ki yéeg ci kaw ku ko laaj am na lu mu ci xam daañ ko posé question yi ñu yaakaar posé question ak règle compte bokkut. mais buñ buñ def rek bu nit yi buñ ko la rek ñu ni ñii dañoo am problème ci souf wala dañuy dañuy dañuy régler compte man bi mu yéegee ba ni mu wàccee gis mu fi ben question bu bu bon wala bo xam ci dafa dafa dafa dafa dafa débordé bép question buñ ko poser rek jaaduma lepp aussi lu mu tontu man nangul nako waye gis gisuma ci ben question buñ ko poser bo xam tay ji man nga ni ki day régler compte mo tam poser ko gisumako ci. nit boo koy laaj la nga yaakaar nga koy laaj la nga jàpp ni boo ko laajee am ci sa ndam am ci la nga bëgg loolu nga koy laaj léegi nag moom lam la wax da nga koy nangul ndax am na ci droit ndax su ko neexu sax wax kon li may ñaan rek mooy yal na yàlla aar leen yéen ñi ci kaw ak ñi ci suuf yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla guddal seen fan yàlla mi nga xam se mooy aar nit te kum aaro nga aaroo yal na leen aar. xam naa nag foofu rek laa ya. yem alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf. wa jere ngeen jëf user user bu user. user eh, user man dal man dal user sa bat bi. sa bat bi dafa ndurok trop batu Aziz. Aziz man. Aziz Dabala. No. no deug la. ah may wax nii mën a nekk mën a nekk peut être dégg te te te te yalla ñu yalla defal jamm ak salaam amin amin amin ya rabbi amin amin amin ya yowit yowit nga di ñu ñaanal bu baax baax ñaan yi nga ñaan yalla ko yalla nang amin ya rabbil alamin te ngeen fekk amin amin ñu bokku ñun ñep amin ya rabbil alamin jef jaajëf jef xamna dal sopp na len mhm. bëgg na len fonk na len tey mhm. naw na len respecté na len mhm. te seen panel bi képp ku koy dégg ku leen déglu dina xam ne ay nit ñoo ci nekk du ay dof damay toog léeg-léeg sama waa kër ma leen panelu ambassade bii jàpp naa ne bu ñu joxoon Sénégal ñu yor Sénégal barke Serigne Saliou Mbacké. est-ce que ba biig laa ko wax ma ni panelu ambassade bi may déglu ñi may dégg ñuy wax ku leen joxoon senegal ñu senegal Sénégal mais nag laf cat laf cat yal na yàlla sàmm leen te yal na yàlla aar leen te yal na yàlla wéral leen. amiin amiin ci barke salaam. man nag saa su ne maa ngi teewlu damaa mënul. Mm-hmm. dafa mel ni dafa am appel micro bi dafa tëju. ma amoon appel su ma ci waxee ne dara loo xam rek dama dama débordé maa ngi tuut maa ngi jéglu maa ngi baalu àq. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. waaw képp di la wax rek ndeysaan. kàddu yi rafet na trop ah frère. kàddu rafet na trop macha allah. Ah. mooy li wax rek ñun. bu dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo bokk li xeex. Ah. lu leer lu leer. Mm, mm. ñoo bokk li ñuy xeex. man nee naa ma li may xeex nii. Mm. nekkul Aziz laa xeex mais ñun suñu bopp ñun après ñun ñi fi nekk. ñun ñi fi nekk. dëgg la wax duñ def Aziz nii nañ ko def ambassadeur la lu leer lu leer mën nañ ko ak keneen. lu leer lu leer lu leer. mais nag. dañoo war a yuuxu. ba xam ne ñu nañu. mooy dëgg mooy dëgg ñi def jëf ju ñaaw ji. ñu arrêté ko mu jeex. loolu mooy dëgg. man loolu la bëgg. loolu mooy la bëgg. la. nga wax la bëgg kum neex ak man day waaye leer na ma ni. amul lu may bañ amul lu ci bañ amul lu ma jaralut. Mhm. amul lu ma jaralut. parce que lii dafa metti fekk nit ci biir këram rayoo ko ci mbedd rayoo ko ci restaurant rayoo ko ci baar ci këram nga ko fekk ray ko. lii ku mu naqariwul. man ngaa bàyyi julli man ngaa bàyyi woor man ngaa bàyyi jaamu yàlla. voix bi. même voix Aziz Dabala. yàlla suñu borom. waaw rek laa wax. man ngaa bàyyi julli. man ngaa bàyyi woor man ngaa bàyyi jaamu yàlla barke bi yonent laa la wax képp ku ci tax rek yàlla na la yàlla nit képp ku ci tax ak ci bokk yàlla na la yàlla nit ci barke bi yonent bi alayhi salaatu ci barke bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te yàlla dina ko nangu nag dina ko nangu baax na jërë ngeen jëf xam naa maa ngi wàcc suuf rek daañu déggante waat jërëjëf maa ngi suuf jërëjëf. ah man de. jërëjëf bu doon ñun de ci joolaay ñu wax waaye nag nañ noppi rek yàlla baax na yàlla ñu yàlla defal ñaan yi yàlla yàlla leeral lépp. salaam maam. waaleykum salaam maam. di la ñaanal waaye li nga wax dafa nduroog waaw Aziz Dabala trop nduroo nañ voix de lii ma voix bii ma dégg man xaaral ma leen ma tuuti xaaral ma tuuti rek may ma tuuti rek dama leen ko ñaan may leen ma tuuti rek maam lu ma xool rek may leen ma tuuti may leen ma tuuti Olá, tudo bem? Queres um presente? ñu leen di ziar bu baax baax di leen nuyu. mais amul ñàkkul benn yàlla may gudd fan kenn ko ja dañuy wane li fi ne duñ tricher léegi ma bëggoon xam ndax yeneen série yi nga xamante ne dañu koy proposé dañoo dund li fi ne. waaw man du ma seetaan série yooyu nag vraiment dama yàlla baal. mais amul ñàkkul benn série yeneen série yi doo seetaan idole wala pot et marichou wala. la il la man du ma seetaan sama bopp sax seetaan sama bopp man damaa bëgg xaalis moo tax. man damay di xaalis ba doo seetaan yeneen série bopp nit moo naa ma Aziz Dabala jàppal xool fii nangam ak nangam ma jàpp wala des fois nga envoyé am benn leen ma xool ma xool ci tuuti rek avancé man lu ma liggéey soxlaatuma ko maa nga maa nga xool lan lan laa sama kanam genre boobu laa moo tax damay je suis mal placé pour wax bi ci beneen série parce que seetaan woo beneen série yëpp a nice nag ndax hmm. tamit buñ demee ba Sénégal di di di di di def ay cinéma dem ba suñu yëf ñëw xam nga tamit liggéey weesuwul loolu hmm. canal bi bukki canal bi am na ay novelas yoo xamante ne côté côté côté côté côté Afrique bi nii quoi fu ne am nañ fa télé ñoom waa Canal mais bu ñu xoolee cinéma Sénégal xam nañ avancé nañ ibbi suñu yëf ibbi nañ suñu yëf jël série sénégalaises yëpp di ko fa teg mu nekk loo xamante ne amoon na àndi ko koy seetaan kon ñu ngi avancé ci cinéma affaire yaa ngi avancé quoi mais man li ma nekk ci laa mën a wax muy VIP bi nga xamante ne dëgg neexul. anti anti anti stress la donc ostaan bi yuuxu barki say dina. boo toogee nii par exemple bu ñu fayoon caméra yi ma laajal la Aziz ban série moo gën a dox Sénégal ban série mooy number one lan nga ah man daal série gii ma nekk Sénégal bii ma dox nii bii bii ma nekk nii VIP sax ci bi nga xam naa ko te moo tax ñu may moo doo ngi noonu daa jàppoon de nee na la nekkoon mu ngi noonu daa jàppoon. waaw Moodu Moodu Moodu Moodu dama ragal bu neexee xool même tamit bu nga kiiwee tamit naa muudaa bu a mën nga bàyyi ba ba nga féex ñuy dégg damaa bëgg tey ñu waxtaan. waaw ambassade maa ngi maa ngi lay fay bu baax ah. neexee ah ci panel yëpp naam. waaw bu neexee ah muudaa. waaw ah, ah, waaw. bu neex nga dem jël sa temps ba pare. Mm-hmm. ñu toog waxtaan lii dañ ko bëgg dañoo bëgg waxtaan waxtaan boo xam si nii. incha allah maa ngi bi jël sa temps ah, ñu bu mu dem de non il faut am na ñoo xamante ni dañuy nelaw te duñ duñu xam kii quoi. ah ok ah, ok ambassadeur bàyyi ko mu wax bàyyi ko mu wax. waaw ayca waaw léegi waaw ayca kon ayca waaw ayca. Hmm. ayca kon maa ngi lay bu baax Maodo ah. delloo leen ziar bi bu baax. Hmm. di ñaan yàlla defal ñu tawfeex ak tey si rek. amin amin ay moom xam naa li mu yàlla may suñu càkk. d' accord incha allah waa baax na. Lagare wol ma ay na waay bu ñëwee na def demande gaaw ñu am ñu waxtaan rek. ambassadeur. ambassadeur damay wàcc ah. dafa am lu ma bëgg a wax rek. na xel yëpp delluwaat ci Aziz. ndax ki fi jaar léegi. bu Aziz làquwul woon bu yéegee fii ñu ne Aziz moo fi yéeg. Mhm. peut-être seeni terme rek lañ wute mais voix bi ben voix la sama xol dafa fees tel tel bi ma ko mu nuyo rek la né ki comme voix Aziz ndeysaan té nak ah dañ dellu si war xel bu baax baax yalla de mën na lu né yàlla mën na lu ne mm-hmm. leen xel na ci li wax yàlla amul lu mu mënul mm. <coughs> man xam ma dama buuse woon man dama bougé woon. mais ma nekkee dégg voix bi man. man daal li ma leen di dénk dénk rek mooy ku taxawoon na nga taxawal ku toogoon jugal taxaw ku tëddoon yeewul sànq da ngaa wax benn wax bu am solo liggéey lu ñu assisté hmm. mhm. kenn ku ci nekk sa boppu ngay liggéeyal. Mhm. xamul tax. ñi dëddu dëddu nañ ba pare xam nañ nu ñu dëddu dëddu ñii dañoo feebar ñii dañoo accidenté ñii dañ leen a faat mais yow xamoo nuy dëddoo mm-hmm. man xaw ma nu muy dëddoo keneen xamul nu muy dëddoo te moo ngi dund mm-hmm. te kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla boo dëddoo ñu def ñu rafetal sa ginnaaw ba mu rafet ku bëgg lu baax nag dangay def lu baax mm-hmm. ku bëgg lu baax yàlla sax li mu yor mayewu ko mayewu ko de kon nag bàyyiwaat leen xel yi bu baax ci lii ci lii amaana nag dégg nañ ko tey est-ce que dinañ ko déggaat maa ngi jégalu Modou mang lay ziar bu baax di ziar ci waa kër ñom ay daag maire bi ñep gis-gis mang lay delo ziar jàmm lay delo ziar bu baax ma sha allah. abi rafet na ndeysaan. ndeysaan. tay okay legi ha ah. kam kam xaram ko tëj micro Modou tout après ma ñew ci moom ah. kam comme gars ay ay ah. ay ayra nag ay na bu ñu ñëwoon rek mu ñu kii damay ba ñu ñëwaat ñuy ah, areeraat quoi léegi léegi Modou ah xam nga sànq démb sa laay wax démb jox benn information boo xam si ni dama bëggoon pour gars yi pour gars yi ah, yi ñu bàyyi ba ba avocat bi. waa naa ko daa yore da doon da doom ji yére mu ngi ñëw nee mu ngi ñëw. ok léegi léegi léegi dañu dañu doon bàyyi ba avocat bi comme avocat dafa rukun bu jëm xol xool soxna ba ba naka lay ba dugg di tok di taxéro mais ma dama ak man ay nit yo xam ci ni dañuy dox ci wàllum yoon man ambassadeur bëgguma ko woon wax ah yoo xam dañuy dox ci wàllum yoon dañ ciy dox ñom ñunuma ci bopam bu fekkee da ngeen bëgg xaar maître li mu duggal ni pour pour Nabou Leye delluwaat pour gars yi delluwaat ko dana jël temps te yuux bi fii la war a commencé pour Sénégalais yëpp mën leen a déggu te li may wax nii ñiy liggéey si yoon laa waxtaan ak ñoom te xam naa lu tax ma ñëw pour wax ko ñu ne ma carrément waxuñu kenn ñu ñu ñu ñu def la mais wut leen autorisation ba pare. bu fekkee am ngeen autorisation mu ne ko ñun autorisation ñun ñu ngi koy dox te am na ku koy dox mun ñu carrément la sett bii nii si boppam soo leen génnee yéen ñëpp ngeen taxaw ngeen ñaxtu wax ba Ousmane sonk dégg leen nit ñi déglu leen dossier bi danañ ko as ñu bari dañ ko accéléré te dañ ci taxaw te te demoon dana ñëw est-ce que sax ñëwul. pour ñu mën leen a taxaw si dossier bi mu gaaw ñu gaaw accélérer dossier bi te te te yaakaar naa bu ñu defee tek tekkaaral bii nii baaxul suñu te arrangé wuñu moo tax ma ni leen carrément buñ nangu la set bi dañu rëcc. dëgg la. nga xam naa lu tax ma wax leen tax man ñi may dégganteel dañ naa wax expliqué ma. te bugguma tamit di cité seen tur nañ waxan dëgg. dëgg la dëgg la. nañ waxan dëgg. dëgg la. waaw. moom lañ ma expliqué. nañ ma carrément ah. Hmm. la set bii nii. Hmm. buñ si génnee ñun ñëpp taxaw ñu wax. dëgg la wallahi di ngeen gis ni dossier Aziz Dabala bi taxawal nañ ko te di ngeen gisaat lu gër lu bi. incha allah hmm. loolu laa bëggoon ay na bu dikkee. ñu tok waxtaan ci ñun ñëpp ñu waxtaan ci quoi au moins ñu waxtaan ci ñun deug trouver solution ñu xol naka lañ ci taxawé deug la ndeysaan parce que bi jenn ni mi Aziz Dabala mi dem ndeysaan man de deug dëgg man ambassadeur barka hmm. rasulillah ni mu demé hmm. ni ñëpp taxaw di ki ñalla la am ni mu am ni billahi wallahi taala ñu xam deug de deug la de deug la amna ñu fi jóge laata amuñu li Aziz am ni billahi deug la deug la dëgg la dëgg la dëgg la. nañ taxaw génn mm-hmm. ñëpp. na ñëpp génn. Mm-hmm. Mm-hmm. na ñëpp génn. incha allah. waaw na ñëpp génn. te am ku may waxtaan wax dëgg yàlla. naa jéem a naka la ñuy kiiyee ba ngeen dem si poro. ba ngeen àgg si poro ba ngeen àgg si Ousmane. maa ngi ciy waxtaan maa ngi ciy waxtaan maa ngi ciy waxtaan maa ngi ciy waxtaan. ku may waxtaan. ambassade. waaw ambassade maa lay nuyuwaat beneen yoon dila gremat benen yon yoon di la ñaanalaat yàlla tawfiix ak si rek. amiin nuyuwaat képp koo xamante ne rek yaa ci panel bi sama ngeer suñu rak. zero maam ak yuda mina sama rak princesse gis naa ko fi léegi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaanee euh, di la wax ni li nga wax ni léegi ñun boobu ñu ngi koy dégg ndax. ñun moom duñu ñu du ñu du ñu du ñu du ñu détaché wu ak panel bi wax dëgg fa mm-hmm. yàlla ci journée bi ba ci nuit bi ñu ngi ak yéen lépp lu ngeen fi wax rek ñun dégg nañ ko. te defe mm-hmm. naa bu amoon lenn loo xamante ne rek xaw naa teey suñu xel man nag ndax xam naa ne wiiri wiiri wiiri wiiri jaari ndaari tôt ou tard mm-hmm. ci suñu suñu kër lay mujjee. kon dinaa def alerte mbaa ma wax mbaa ngeen dégg ma waaye nag xam naa ni ci bonne voie ngeen nekk. te da ngaa wax lu am solo léegi lii nekkatul xeexu Aziz Dabala ak Waly suñu waxantee dëgg rek mm-hmm. lii nekkatul xeexu xeexu Aziz Dabala ak Waly da xeex pour justice maanaam lii mu bañ fee amati mm-hmm. te lii nii bu fekkee dañ koo banaliser ñu bàyyi lii jàll kenn waxu ci kenn defu ci dara bu ëllëgee bul xamaat kañ kan lay dal mm-hmm. ñun dañoo nekk ci xare rek ku reetaan ka ñu jëm rek daa fekk ni jamaguñ la kon li mo xeex national la ndax justice lañuy bëgg mu am té li nga xamantene dal na ñaari xalé yi mo bañ amati ci kenn. Mhm. ndax lo xamantene ni dañ la fekk ba sa bir kayir nekul agression nekul xex nekul dara fekk la ba sa bir kër kër fi ngay suturloo ñu fekk la fa def la lan lay def lolu mom lu ñaawa ñaawa ñaaw la ci li nga wax ni ci walu marché bi nak tay si bëccëg rek wona sam ngeer wala sam ngeer wona ma. Mhm. am na lu ma expliqué moo taxoon tey ma guddee wàcc nii sax damaa wàcc rek ñëw daayira bëggoon a xaar ba ñu dem ba ca kër ga ba dem ba ca kër ga mais mhm. du tee su ma mag woon ma sànq mhm. réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo fi am mhm. réeroo moo amul ñàkk waxtaan moo fi am def defe naa lii ngeen xeex tey ji ci ñun ñii la waroon njëkkee ñun ñoo waroon jóg comme ni nga ko waxee sànq Ndeye Gueye ñun ñoo ci waroon nekk ñun ñoo waroon xeex ñun ñoo waroon taxaw ngeen ñëw nekk suñu gannaaw kon bu fekkee lii nii da ngeen cee nekk kon ñun ñoo leen war a ñëw gunge ci mbir moomu waaye nag nit ku nekk ak xalaatam. nit ku nekk ak façon de voir am man de dara umpuma ci li ngeen di def nii. dara mm. ma ci moo tax nag man du dugguma pour impli impliqué wu ci maanaam naka lañ koy defee wala ma dem ci sàmm ngeen naan ko fu ngeen tolloog yooyu parce que loolu du yoon. Mm-hmm. du yoon parce que nag nit boo ko jiitalee doo ko fa xastal gis koy ànd ak moom ca la nga xamante ne moom te te te loolu la nekk. Mm-hmm. te gis ma ci benn faaye gis ma ci benn affaire boo xamante ne rek war naa cee mën a ñëw dugg. di mm-hmm. laajte wala may coytu. Mm-hmm. lu dul rek ñëw gunge leen. ñëw gunge leen ma gunge leen bi di dama part ba ma xoolee lii ba xool ko. damaa créé damaa woo damaa def sama groupe. dugal koo xamante ne suma famille la nga bokk ak Aziz Ndeye ak Baye mbaa moom Baye mbaa nga nekk ci famille bi rek. ndeysaan te loolu barki démb laa ko def créé ko xamal leen ne ah man duma ma mën du mën di woo kenn naan ku nekk ma wala téléphone na la lii de am na lii de am na mm-hmm. léegi nag information bi na koy jaaralee fii pour ngeen dégg luy xew mm-hmm. man da loolu laa def parce que loolu laa lay mën a jàppalee te loolu moo nekk sama appui le mm-hmm. quand à nag gestion bu nañ ko nuñ koy defee noonu ñëpp li ma wax sànq rek du ma jiital nit ba pare di ko fakkastal te li ngeen nekk nii man dama ko gis dama cee teg sama bët ba amoon mhm. ben fay wala mu ben lu ben ben ben mhm. lu ñagas ñagas rek ah duma seetaan nak deug tak neexul bu len ne bu len wax ni Modou Ba dafa nopi wala Aïda dafa nopi la mhm. xamé do yaru de yaru wuñu de buñu ñu gisoon lépp loo xamante lu ñagas la rek dañuy taxaw parce que nak amna lo xamantene xamante duñ ko duñ ko baye muy jall parce que bu ëllëgee rek rek bu ci am wala fay bu ci nara am wala soupçon bu duñ duñ leen suñ leen na yende suñu lañuy la ñuy ñëw dëgg tamit neexul mo waral nak manam contradictoire ñuy ñuy waxtaan di di di di alerter bëgg li nga xamante ne rek ñun ñëpp buñ ko àndandoo defandoo ko xaacandoor durandoor maanaam dinañ am loo xamante ne moom lañ bëgg muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy maanaam marché bi marché comme ni ñu waxee comme ko bëggee tamit loolu dong la waaye ñun moom ñu ngi ak yéen à cent pour cent te loolu lañ ciy mhm. d'accord dëgg ànd ak na nekk am na loo xamante ne kenn du ko mën a wax ci kaw mhm. ndax ñun dañoo am kilifa ñun dañoo am kilifa dañoo am ay mag dañoo am yaay ba tax na ñoo ñëpp tey dañoo bokk ci li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom moo war waaye nag xam na ni réeroo amul mooy li ma wax rek base bi mooy réeroo amul ñàkk waxtaan mu am ndax ñu suñu kër dañoo dañoo kenn nekku ci réseaux sociaux bi ku dut man wala Aida dëgg la ku dut man wala Aida rek kenn nekk ci réseaux sociaux bi moo tax duñu comprendre anak princesse mi sax waaye duñu moo tax duñu comprendre maanaam loolu nu muy demee dëgg la waaw duñ comprendre ku ci nekk da ngay da ngay dig gis nit woo woowee la àll ba. na la ñii mhm. seen vie rek la ñu ut. ñi ñii duñu dara ñi nang fekk mhm. yow nag xam yow yow toogloo benn minute. Mhm. wala toogloo benn heure wala toogloo benn deux heures de li ñuy wax. ndax bu dewul ay naxee mbaay mbaa mu nekk ay fen wala mu nekk ay nar kon du yàggee nii. dëgg la. waaye nag loolu nag ku ko xamul xamoo ko. nag nga loolu dañ koy nangul ko ne ku ko xamul xamoo ko. waaye man mii nekk ci panel bi di xool. di deglu di gis xamna ni yeen bu leen lifeer bu ñorul won kon heure bi kan tasna bu yag te lu ne kan ma fi nak lu nekk gis naa ko kon nak ba tax na loolu ngeen wax nonu muy marché ba la set bi man bokko na ci ñuko appuyer te dama koy appuyer ba fu toll ni bokku na ci ñuko appuyer te dama ko appuyer fu mu toll ni mhm. parce que nak lu wara am la mhm. te lolu nak gooma ni sax ni ki nga xamantene mom moy mooy war nako meuna bañ war war nako meuna arrêter ci combat am la bokk. Mm-hmm. tey jii bu nekkee benn côté bi di nekk ci wàllum kayit ñun ñu nekk ci beneen côté bi taxaw di yuuxu comme ni nga ko waxee nii bu ñu yuuxoo def naa gouvernement bi wala ñi nga xamante ni mooy ministre de la justice wala ñi nga ñoo nekk ci wàllu justice bu ñu déggee dinañ xool ne lii lu xew. Mm-hmm. mais bu nekkul taxawuñu si dossier bi à 100 pour cent waaye dinañ ko yundu xool mm-hmm. nañ lañ lan lañ defoon si bi wala lu luñ ci bàyyi woon. ba tax dinañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax kon loolu baax. di ci remercier yéen ñëpp di leen ci remercier à 100 pour cent di ci remercier tamit Samba Gueye nga xamante ne démb toute la journée ci loolu la nekkoon. toute la journée ci loolu la nekkoon bàyyi léppam bàyyi léppam ñëw di dox ci li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax tax marché bi am muy autorisation yooyu kon danga ko ci gërëm di ko ñaanal bu baax di la ñaanal yéen tamit waa panel bi. Mhm. man de ma part personnelle man de ànd naa ci à 100 pour cent. Mhm. parce que nag dara ma ci li mhm. li xew. du ñàkk nag am am koo xamante ne moom xamul comme li ma wax mm. sànq rek ñëpp nekk ñu si réseaux sociaux bi ñëpp tamit xamuñu ambassade ñëpp tamit xamuñu panel bi nu muy demeek yooyu loolu moo waral contradictoire waaye nag réeroo amul ñàkk waxtaan mu am te man moom dinaa waxtaan ak Samba Nguer ci bu subaa ndax man tey laa ñëw nii nekk daayira waaye bu subaa dina waxtaan ak am kii am Nguer te mm-hmm. dinaa waxtaan ak ambassade en mm-hmm. plus tamit gëm na ni lii nii day am te dafay am mm-hmm. sax ba tax na man damay wax Samba Nguer mu maintenir li nga xamante ne moom moom nekk marché bi nii na ko mm-hmm. maintenir parce que tamit xam nga lu tax nit boo nekkee ak say nawle yoo xamante ne nekkuñu fii wala dafa am ñu am nañu nekk fii am na ñu fi nekkul ñu am benn mbir boo xamante ne ngi dangeen koo sosoon mm-hmm. ñëpp di ko waajal ñëpp di ko fuglu te nekkul lu bon nekkul lu ñaaw nga toog a toog a mm-hmm. toog a toog rek nga gis benn décision boo xamante ne fu mu jógee c'est invisible duñu comprendre duñu comprendre tey ji mën nañ ci ñaaw njootu ci sàmm ngeen baam ñaaw njootu ci ambassade or que du ça parce que man nak ma ngi baye xel bu baax baax baax ba te ñepp ñoo bokk tay ji li ñuy dox motax man mom appuyé na te bokku na di ci partant te xamna ni lolu man suma ma kër ga suba inshallah dinañ ci gëna am lu gëna a concret ndax réeroo amul ñaka waxtaan rek mo am inshallah allah incha allah <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mawla kàddu gi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu maanaam réeroo amul ñàkk waxtaan rek am ah comme ni nga ko waxee rek. dèjà loolu kese loolu kese la. loolu kese la te te loolu duñ duñ duñ te loolu duñ ko bañ. te loolu duñ ko bañ te parce que tamit li ngeen wax rek xeex bi moo laaj lii sax xeex bi moo laaj lii nag xeex li ngeen a xeex nii wala lu ñuy xeex nii moom moo am ay ay mbir yu sew yoo xamante ne doo comprendre. ba ci au sein dañoo famille ñun loolu pour ma xamal leen ko sax. lu see panel bi kese de. ba ba si biir famille <laughs> Aziz da nga gis nit ku jëlee jógee feneen woo suñ benn mag pour rek am lu mu am lu mu accaparé am loo xamante ne da bëgg a da koo bëgg a fa bëggul am daal. Oh. am na loo xam da parce que ñun ay kilifa ay xale lañ. am nañ suñuy mag da gis ku jóge ci panel bi fii woo suñu mag ba mu keneen pour rek bañ li ñu li lii ngeen sumu bañ am. nga gis suñu mag yi ñëwaat dawaat si ñun. na nangam bi nangam baa da dañuy dégg ne. waaye nag xam nañ ni lii moo nekk xeex boo xamante ne xeex bu noobul la. Mm-hmm. am na loo xamante ne tey jii am na ñu ñu ñu ñu ñu zalu wala ñu bon ñoo xamante bëgguñu sax victoire bi feeñee fii. loolu moo lu ma wóor la. am na ñoo xamante bu ñu soñoon victoire bi lay jógee. ndax toujours yaa ngi gis ay buntu yu yu bees. waaye bu ñu mm-hmm. soñoon tey jii buy feeñ du feeñee fii. loolu nag mm-hmm. am na loo xamante ne nag euh, mbiru yàlla la. am na loo xam mbiru yàlla ndax panel yu taal ñëpp pay na tey jii bii rek lañ fiy gis buñ gisaatee ñeneen di ñëwaat nànk-nànk nànk-nànk te boobaak léegi ñu ngi fi woon te ñëwuñu nga xam ne kon mm-hmm. am na lu yàlla bëgg a wane am na ñoo mm-hmm. ne tamit taxawaa nañ beneen côté bu ñu soñoon sax lii ngeen bëgg maanaam victoire bi feeñ wala dëgg bi mm-hmm. feeñee fii sa duñ ko bëgg loolu nag mbiru yàlla la ba tax na daal nañ nañ jàpp rek nañ jàpp rek lu tee nag mu am ay rëkk rëkk mu du tee mu am ay ay ay ay ay wax lu tee ñun di ngeen dégg waaw lu waaw lu dégg du tee ambassade dégg fenn wax du té sam nga déggé fén wax du té tee ñi nekk ci panel bi déggé fén wax wayé nak nañ japp rek to bay mm. parce que nekkatul Aziz Dabala nekkatul mm. wali wa li affaire mm. national la affaire nationale la ay lool la rek waaye inshallah allah nañ nañu lépp dina baax soobee yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Samba jërëjëf jërëjëf jërëjëf kàddu di rafa na trop ha ah, ndeysaan yakar na ni yakar ni Modou wax na lepp ha ah, kàddu di rafa na trop moy di wax sar nee naa leen man Aziz bu dëgg yàlla man lii moo tax ma xam Aziz Dabala lii moo tax ndax man dama ko def ni tam ki ma bokkal ndey ak baay loolu maanaam Aziz Aziz ak mel nii suñu borom moo ko def ah loolu day am si nit ah de loolu day am si nit quoi man mooy li wax rek combat bii nii wallahi azim tant que bi leerul duma wàcc naay dégg lu ne xam nga li dafa met maanaam dafa métti ñu fekk la seen biir appartement rey la ñoom ñaar ñëpp muy muy muy ak Aziz yéegi ñu bëgg a taxaw wax ñu ne doo leen fi waxee pour lan mën nañu xëy suba def ko ambassadeur wala def ko sàmmange wala def ko muuri mii wax ji loolu la. léegi nag man ah si côté la set bi laa bëgg ñu waxtaan si bu baax ñu waxtaan si nañ ci gën a waxtaan waa panel bii nii muy waa team ambassadeur ñoom ñoom mm-hmm. taxawoon nañ mm-hmm. pour jël avocat pour dolli ko maître xorey si mm-hmm. ba benn gel bu ñu daan liisa yëkkati mille euros fii ak taxaw dégg ñuy wax affaire avocat mënuma ambassadeur man pare naa pour joxe. dëgg la loolu euro mën naa kaa joxe. Odise lii def ma ko mais man mi sax pour ma dem pour maa ngi xalaat man dagg naa billet ba pare mais pour dem Sénégal est-ce que wóor na jamono jii nii. ndeysaan. mu ne man danaa yëkkati joxe ko. pour man pour pour pour maa yëkkati 1000 euros joxe ko pour sama cotisation. ndeysaan. waaw te foo leen mu woowaat ci jamono jii nii mu ñëwaat. ba léegi muy lii saar mu ngi si biir live bi ah. bañ dem ba ni ba ma ni sax man damay defar benn courrier express yoo xam ne mooy yi def nii comme nga li ñoo defar Ousmane Sonko ba ñu kàmp bañ koy kiiwal bañ koy katal. yoo xam ne lu dugg famille bi ñëpp dañ koy gis lii dugg lépp dañ koy gis. Mm-hmm. mais dañu gis ni loolu wóorul. Mm-hmm. Mhm. te ñun benn avocat ñaari avocat bu ñu amoon lu mat dix avocat sax daf dañuy jël. dañuy jël billaay jël. te yaakaar naa man ñi ma seqal ñi nekk ci waa team ambassadeur. Mhm, ñoom mhm, taxaw nañ ci loolu lépp. billaay dëgg la boobu la ñu ngi ciy jàpp ah. billaay dëgg dëgg la de. dëgg la de loolu lépp ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy dox ah ñu ciy dox bu baax mm. na mm, ñu ngi dox mm, bu baax. naa si côté boobu dañ si gën a ñëw dañ si gën a ñëw gën see yaatal. incha allah danañ ba dégg ay wax yu ne ay sàmba lekk la xaalis bi sàmba yóbbu na lii dëgg la koy bàggee bi sàmm bañ. naa nga ma la rek. mais dëgg la. ñoom xam nañ kuy sàmm jeer ah. dëgg la dëgg la waxtaan naa sàmm lu mu def lu ah. dëgg la soriwuñu ah? de soriwuñu moom bilaay sàmm soriwuñu bilaay sàmm soriwuñu. moo tax moo tax keroog ba mu keroog ba mu taalee panelam bi maa njëkk a yéeg. ne ko carrément damaa foogoon ci leneen ngay wax. waye mbirum genn kaas bi mom mënu mënu mu war man man sax dama dama soké billahi iya. wallahi talaay genn kaas mom di wone mom lol mom moo mo waron mujju mujj parce iya. que nak xam nañ ko bu baakha baakha baakha a baax fi la juddo fi la yoro degen ngeen suñu frère bi diko wax suñu kër la doon fanan Sam Ngir suñu kër la doon fanaan deugal xamal ko lu ñaaw ci koñ bi ken déggalu ko lu ñaaw ci koñ bi fulla ak fayda la am dafa naa moom Samba Nguer xam xamna bu baakha baakha baax kan moy yaayu Aziz jauh le fi nek rek coow lee fi nek rek ku xamul tamit xamuloo waaye Samba Nguer moom wax mala Modou kan miñ wax mala la Ayda Ba wax mala kenen kenen waye mom xamna moom kan moy sama yaay bu baakha baakha baax do dina japp ko paan ko mag ni bu defon lu toll tar tar fàttali hayne ci lu nga xamantene moy lu moy lu lu mu jix mu ci xelam rek waxuma la da koy woo ci këram sax waaye da koy fekk ji ci këram. ngeen xam ne elle ne laisse pas faire moo sama yaay. dëgg la pour wan leen moom elle ne laisse pas faire. Mhm. kon ñun xam na sama nget bu baax a baax a baax maa ngi fii ci panel bi chaque jour. jour et nuit su ma si gisoon lu toll ni tarafale xëy na si lu ñaaw. xoolal lu ah ñàkk ñu fay fayda nag te de du ñàkk ñu mhm. fula tamit de. te am na loo xamante duñ ko bàyyi mu ko mu dem damay yéeg fii ci kaw. Mhm. fii ma yëg fii ci kaw wax ko fi. Uh-huh. te du jàll. te bu uh-huh. boobaa yéen yéenay découragé. ci uh-huh. mbir mi ngeen di seet nii. parce que tamit lu ak ak quelque soit alpha ñun bu ñu bu ñu soñoon Aziz ak Waly ñu reposer en paix. waaye lii ngeen lii ngeen di def nii mooy li koy reposer loo en paix parce que bu nekkoon en paix rek dootul dootul déggati panel wala dootul déggati seen tur yi. dëgg tamit neexul. ñu tëddoon reposer en paix rek dootoo déggati seen tur waaye nag xëy na dañoo nekk en paix dañ leen tooñ. da leen a tooñ def leen lu ñaaw moo tax tànk lii feeñul rek ñoom duñu poser en te lool nag da ngeen cee nekk loolu nag ku leen ci appuyer wu rek war leen cee def loo xamante ne daf leen di décourager loo lii ngeen di nekk nii à cent pour cent man Modou Ba je suis dama cee bokk à cent pour cent à cent pour cent gëtawul ak leen dara parce que marché pacifique taxaw di bëgg justice ñu def ko ci li nga xamante ne moom mooy ñaari xale yi loolu jotewul ak dara ak lenn. ndeysaan jotewul ak dara ak lenn kon loolu lu ñuy ànd la. Mhm. lu ñuy ànd la incha allah te gëm na ni lii benn be maanaam benn obstacle la bu bul ñëw ci diggante bi rek la waaye day jeex dàq day romb waaye nag parce que lii ma ko laaj. lii moo diis te chaque jour ma dégg ngeen koy wax. lii nekk xeexu ñoog ñu nga xamante ne ay ñun ñu ndaw lañu. déedéet xeexu ñoog ñu ndaw. loolu na moo tax chaque jour su ngeen bëggee defee lu baax loolu suñu bëggee def lu baax la ñuy wax sax am lu ñëw ci diggante bi uh-huh. te loolu bàyyi an force la waaye nag loolu dara du la ko mën a génne loolu du nga résister taxaw uh-huh. faxas loolu mu jàll nga pousse ci dem ca kanam loolu uh-huh. kese la te gëm nañu loolu day am incha allah yàlla ñu ànd ak ñi nga xamante ne mooy ñu nekk ak moom mooy mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ñoom ñoo yor dëgg bi defe naa xam naa bu ma ñëwee Sénégal xam naa naa fa ñëw incha allah incha allah incha allah su ma ñëwee Sénégal faa ma jàkkaarloog maire bi quoi incha allah incha allah incha allah yal na yàlla dogal loolu bu soobee yàlla amiin amiin amiin kontaan nañu kontaan nañu trop wax dëgg fa yàlla jaayëf Modou ambassadeur zéro kontaan waaw ambassadeur yaakaar naa dafa mel ni Aïda mu ngi ñëw na de ah Aïda waaw Aïda waaw moom laa bëgg ak kii waaw dalal Aïda waaw waaw mu si kër gi

ndax gars yi moom lañu ñu expliqué waa waa waa panel bi ñoom pare woon nañ pour ñu jéem jéem dox la marche bi marche bi le sept bi ah dañu dañ naan marche bi du am ñi naan am na ñi naan am ñi naan fomm nañ ko léegi man léegi man pour gars yi xam il faut ñu toog ñu waxtaan ba xam marche bi c'est confirmé le sept ah te yaakaar naa ni marche boobu noonu ayda bu amee yaakaar naa dana arrangé mètre ah. ndax lu koy gën a dolli la. lu koy gën a dolli la te marché bii nii. ñëpp ñëpp war a génn ñu taxaw. seet yi gars yi ñu ngi ciy defar ah. yaa ngi defar te seet yi. jéem a xool naka la ñuy ndax la set bii nii. buñ génnee. day am lu bari de. waaw moo nak nag moo tax mu bëgg nag yow ma xool yow sa kàddu yow ba xam yow lan nga si xalaat waaw si lan yow noo ko jàngatee. ambassadeur. Mm-hmm. maa ngi lay nuyuwaat bu baax yaag euh, ñu nekk panel bi yëpp Samba princesse Modou ak ñi fi nekk ñëpp maa leen di nuyu. ñu lay fay bu baax. Euh, affaire de léegi mars bi wax dëgg yàlla réeroo sax amatu peut-être dañoo waxtaan nañ xam na dëgg la mais xam nga moom comme ku ci mel ni bi leen la doon tiit ba parce que mag la dana damay bañ ngeen marché ngeen am problème ñu ne waa kër Aziz ñu ngi xeex moom rek la doon tiit ron bante yi ñu def marché ñu ne carrément waa kër ñoom Aziz Dabala ñu ci ci problème lañ ci doon parce que ay di am ñu ñu après bu mu man wax yaakaar naa ni ñun xeex taxu ñoo jóg dañoo bëgg a bëgg a def suñu marché rek bu ko defee te ñun ut nañu autorisation mais dama jàpp ne autorisation xanaa boo ko amee ba pare foofu noonu am amatul problème foofu ci lu ma jàpp tax que ñun xeex taxu ñoo jóg sànniwuñu ay lacrymogène hmm. ay paaka dañuy xeex tey jii nii pour justice pour Azza et Wally ñoom ñaar kese moo ñu tax a jóg mais du leen mais ñoom foofu lañ ko doon gisee pour bañ a def loolu tey problème am ñu ne boobu ba tey jii ñoo ngi calme tey ñu ngi commencé def ay détails ñoom ci mm. loolu rek lañ doon tiit wax dëgg yàlla mm-hmm. di leen wax ne man maa ngi mm. seen kanam bis bu ngeen ko mm-hmm. defee man ci li ma ci jiitu maa ngi ci kanam bis bu ngeen ko mm-hmm. bàyyee man maa ngi continué di xeexal kanam ak lii laa am ci ma ci wax bis bu ngeen ko defee laa la wax maa ngi seen kanam kenn du ma ci jiitu maa ngi ci tax as man lépp léppam laa la wax même buñ ma ciy fekk sa barki Serigne Touba sama mag di jaral na ma ko léegi bu nekkee ba xam ba kan lay laaj man aada jaral na ma ko bu ngeen ko defee laa la wax maa ngi sa kanam bu ngeen ko deful maa ngi sa kanam man aada dama ko dama damay fii nañ am yàlla rek mu sotti ci jàmm kenn ku nekk dañ ciy xalaat ci safaan rek mu bañ a am ñu am yàlla mooy ñu ci ndam ndam rek lañ ci bëgg ndam kase yàlla xam na ko ñu ñëpp ñoo bokk lu ñuy yàlla xam na ko yéen tamit seen taxaw li ngeen taxawoo gis nañ ko boobu ba tey ji ñëpp fay nañ seen panel mais yéen a ngi ci nit ki buy def dara nit ki buy def dara ndeysaan da nga koy wax jërëjëf même ak lu mu métti métti métti wax ko mm-hmm. jërëjëf mm-hmm. Mm-hmm. parce que ba leen neexoon kenn fayu leen ah joxuñu leen suukar man ambassadeur mën a déggate bala mën a déggate yàllaa xam lu ñuy déggante bariwul yaa ngi dégg kenn fayu la ñaar dërëm ñu fi toog ñëpp kenn fayu kenn leen connexion waxtaan wax dëgg sa la wax dafa métti da ngeen di toog ci panel yi ba ay 5 heures du matin te pourtant ñun ñu bokk ak Aziz Dabala nday ak baay ñooñu mm. nelaw dëgg la te yéen ci ah, panel panel yi ngeen ci nekk suba ba ngoon di xeexal Aziz Dabala te pourtant xamoo leen Aziz Dabala mosoo leen koo gis mm. Mm. te pourtant ñun ñuy bokk Aziz Dabala nday ak baay dañuy nelaw ba sànni suñuy tànk te yéen yéen a ngi fi di xeexal Aziz Dabala kon au moins benn cadre dañ leen mën a wax donte ko ndaw na mais merci si boppam sedd na xol laay dëgg la kenn amul seen fay yéen ñëpp barki alquraan karim kenn amul seen fay man aw da laa la wax bis ngeen ko defee maa ngi ci kanam su ma ko defee tamit man Aïda man dinaa xeexal sama mag ndax man sama mag jaral na ma lu ne. barke Seydina Mohamed. Aziz Dabala mi tëdd fee man Aïda jaral na ma lu ne. kon nag réeroo amul ñàkk waxtaan am. dañ doon ragal rek tey ji ah. ma de fàtte naa ko. yaa doon ragal rek pour am. mais na yàlla sotti lépp. incha allah Pape Maguette na ko yàlla sotti lépp ñun ñëpp ñu mm-hmm. ànd def mm-hmm. mais ma waxaat ci beneen côté. fii kenn defante wu fekk Kumba Gawlo wax la nag dégg-dégg lay laaj am na kuy dégg am na koo xam ne mu ngi ci panel mu ngi dégg moom laay waxal pour mu dégg ko moom xam na moom xam naa ñun ngi noonu toog boo ma boo ma tegoon te Kumba Gawlo daf may bàyyi dem jëli ji Kumba Gawlo ñoo bokk ndey ak baay moom papa naa groupe moom ma dégg dem ci Kumba Gawlo <laughs> kon boobu buñu doon xeex Kumba Gawlo du ànd du ànd ci xeexu Kumba Gawlo ñeeni may dégg bu baax a mais tey la xeexal Aziz mhm. Dabala bi du marto du paaka du jaasi mhm. marché rek la à de 17 heures wala 18 heures day jeex ku war a dem ci Kumba Gawlo dem yow moom di déglu ah. panel bi xam nga ma xam naa ne yow laay waxal xeexuñoo Kumba Gawlo te aat ba du neex ba ñuy xeex Kumba Gawlo kenn dañoo bëgg marché parce que nag di mm. laaxi walaax bu ñu ko deful fii la set nii après képp ku amoon temps day lii day nekkaat ci leneen parce que décembre bi mm. bëri na ay programme bis bu ñu bàyyee lii rek dañuy nekkat yeneen njëkkee te dossier Aziz Dabala bi dina suux dëgam nag yéen bokkoo ak ñu bokkoo leen ak ñun dara te ba tey yéen a ngi xeexal Aziz Dabala kon dafa rafet mm-hmm. yéen ñu giital leen ñun ñu bokk mbokk Aziz Dabala ñu féete ci ginnaaw bu ngeen waxee waaw ñu ànd ci ak yéen mais na lépp rafet rek bilaay dëgg la dëgg la na lépp rafet ambassade ambassade ambassade dog dog dogumaa yi de sax moom moom moom madame Diagne daf maa yëpp nag waaye man garaawul <laughs> daf maa yëpp est-ce que xam ngeen à part Aziz Dabala man lu mu am man la koy sànni waaye nag garaawul mën naa waaf lépp waaw waaw waaw ba tax naa man su ma ibboon su ma su ma parenthèse ci Coumba Gawlo day jël temps bu bëree bari bëri bëri billaahi wallaahi tallaahi dañ ciy dégg lu nekk bu ñu ibboon parenthèse rek dinaa jël temps bu bari waaye nag toujours man damay bëgg a ci lu ngeen xamante ne comme li ko waxee nañ focus ci Aziz Dabala mm-hmm. ndax xam naa ni tôt ou tard rek Coumba Gawlo moom toujours rek moom ñun xam nañ ko xam boo xamante ne toujours rek dina am ku ñu koy ñu koy fàqal pàq toujours fu mu mm-hmm. koy fàqal pàq pour ñu dugal ko ci yenn détails yi waaye Kumba Gawlo ku ko xam-xam Aziz Dabala gëm naa ni tey bu dekk woon bu subaa mu ngi bu samdee mu ngi ca mu ngi ca Grand Théâtre billaahi wallaahi tallaahi ndax xam nañ cër ak respect bu mu def Kumba Gawlo mhm. cër bu rëy a rëy rëy te mhm. ku neex da yéen a koy débat ci seen biir am na fu mu toll woon Aziz Dabala kenn déggatu ko woon mhm. jugaatam bii ba ñëpp di ko dégg dafa dafa dafa dafa dafa si Kumba Gawlo la tàmbalee si Kumba Gawlo la tàmbalee kon Kumba Gawlo amuñu problème ak kumba gawlo te lolu di ngeen ko xam ci kanam ak kanam ak kanam kumba gawlo toujours mu ngi ak Aziz Dabala toujours mu ngi ak Aziz Dabala ba berki de mondial ba muy def conférence de presse ba muy ibbi conférence de presse dafa né une minute de silence pour Aziz Dabala et Samba lolu mo ci ibboon parenté day bari même ci ba ci ba ci ba ci ba ci borom borom borom kenkaayri rebi sax suma ma parenté si ak kenkaayri pour nga xamant sax lay wër koku sax xamu ko sax pour may leer waaye nag bu débat bi bu débat may ma may eggali ci maa bëgg a moo tax maa bëgg a wax ci sama xam ma ko waxee woon keroog ci sa ñu bari ñoo ngi yaakaar tey jii ci dese as bii nii yaa ngi ciy recevoir ay xaalis du ko tey mais yàlla xam na yonent bi xam na rafet ngir yàlla ay waay ñu wax wax yu ñaaw yi ñoom man xam li nga sama ngeer nii tout wax barki Seydina Mohamed bët yi ma doon xoolee Aziz Dabala bët yooyu laay xoolee sama ngeer ko metti damay xuloo ndax sama ngeer Modou Kane mi nga xam ne ci dara barki démb moo njaay bu may mm. lànkante gi ba sama ngeer moom te moom na ko gis nga man sama nit dama mën sama nit barki Seydina Mohamed su waxee ci moom leneen barki ko nangul doomu aadama man nit ñi ñu ma bokkal xam nañu Modou Kane mi xam na ma man kuy tàng man maa la gën a tàng kuy wax man maa la gën a wax dama mën sama nit mais ngir yàlla ñuy wax ne Samba Nguer mu ngi luubal ay xaalis ngir yàlla nañ ko bàyyi xam nañ ma nag te xam naa leen ñoo ngi ñii ci live bi ñoo ngi dégg ñoom mu bu a baax nañu bàyyi wax ju ñaaw ñun defar tax a jóg Samba Nguer même bu lekkee ci affaire de Aziz Dabala ngir yàlla xaalis boobu moom war na ko mën a lekk parce que xam nga lu tax mook Aziz benn lañ du ñaar ni muy sonnee ci affaire yi nii Modou Kane mii sonneewu ko ci man mii sonneewu ma ko ci dafa bàyyi yitteem yëpp topp ci naaj bi tàng bi di darti darti te bu nekkoon ñun la duñ ko def kon nag ngir yàlla yaa xayti ñu nga nit ku bi def si nit ku du rafet boo mënta boole nit ñi ñu ànd bul buy def yenn yoo xamante ne dafay dafay dafay safaane vraiment ndax tey jii sàmm ngeen bu croisé la woon baraam barke Serigne Touba billaahi wallaahi lu leer laa leen di wax te affaire dese Aziz bii nii dina suulu sàmm gor la yaayam gor la yaayam lu muy dégg metti na man bëgguma tey jii sama ngeen nit di ko wax yenn yi parce que xam naa ni dafa régg démb tey soog a ñëw ñaar fukk yeeg mm. juróomam yi ñuy envoyé ñu yaakaar ne mu ngi lekk a mm. a ayda ni wala ayda naa te pourtant am na ay xarit Aziz Dabala yoo xam te si dëju Aziz Dabala a gis oh, mais mu ngi xool yaay Aziz Dabala mu ngi xool rakk Aziz Dabala ngir yalla nañu bayyi wax yu ñaaw yi ñun ñep defal rek ñu taxaw a kon kon mënu ñu dañuy and pour defal xéxal Aziz Dabala ba pare ñii nekk ci kalan bi ñi nekk ci kalan bi ma ngi wacc nak mais xamna ni li ma wax koku non dajal nako dajal nako def nako bakal moo ngi koy transférer sama mak mais man Aïda daw ma dara ay da ko ngi ci kanam merci beaucoup maa ngi dem Aïda Aïda mm. mm-hmm. ngi lay nuyu mm-hmm. di nuyu papa naa mi ma fi fekk euh, Modou Ba dama leen bëgg a wax ne daa am lu am solo lu fi xew ñu di ziar Samba Nguer mii dafa am lu olof wax li nga Samba Nguer mii Aziz ko jiital ci ay mbiram mhm. moo ko joxañ askan wi moo ko ñi askan wi Aziz dafa defar ginnaawam wax li mu war a wax doog a dem mhm. ñun ñiy takku di leen xeexal kenn xamu leen ci kenn mësu leen a gis mhm. panel benn dajale ñu di leen xeexal Aïda gis nga Sénégal deru gor yi la ñuy juub tuuma la teg tuuma moo tax tey ñu yem fii ñu yem dama leen a bëgg xamal lenn amul leen nu ngeen di tontu ragalu leen de am ngeen gémmiñ am ngeen làmmiñ mais tontu da koo jarut parce que mënu leen a yor seen naqar ji ba pare nit ñi wër di wax wax la nu baaxoo ku baaxoo wax danga koy bàyyee wax ndax kii wax mi ngi sa ginnaaw bul tontooti bul lijjanteeti la set takku leen ba dëgër ngeen génn marsal seen mag xeexu leen defu leen lu ñaaw waxu leen lu ñaaw defu leen loo xam ne da ngeen a cokkaas kenn aji ki dem la xeexal bu fekkoon ne Aziz dafa dem ci anam yi mu war a demee kenn dajaloo fi di wax lu nu war wax mais Aziz mm-hmm. doon koo boom boom gin ku boom moo tax nit ñi di xeex di wax mm-hmm, yaa ngi may dégg moo tax nit ñi di xeex di wax ñi ñi ma bokkaleen aar bi génnuñu sunu génnoon kon ñun duñu génn sàmm nger nak olof dafa am lu mu wax bu dutoon tubay julli ñaaw sa nger sàmm nger sàmm mi. mi yalla da koo booleeg sa yaay Aziz dafa jël sàmm nger denk leen ko denk ko sa yaay kon nak na sàmm nger téye ba mu dëgër jërëjëf rek lay dégg ak waaw goor ndax gor du daw ta mom gor la yeen ñi tamit ay jullit ngeen motax ngeen dal tay waye man bis bu ne ma wax ci digg panel bi su doon man lan def li ñu def Aziz ma bokk ak Aziz ndey ak baay kon heure bu ma xëyee ñu dégg ma may supp jalañ baa may périer ñu dal ngeen lu leen waaye wax tooñ leen am ngeen droit mars am ngeen droit bas am ngeen droit wax lu leen naqari ñiy bind nag aka wax bu leen leen tontu xëy da nekkal ca la nga nekkoon yow Modou Ba nga nekk ca la nga nekkoon ngeen takku nag ba mu dëgër le set bi le set bis la boo xam ne ñëpp a ko bokk incha ku jël wax ji féetale ko ci Kumba Gawlo tooñ Kumba Gawlo pourtant Waali tëgg na de Youssou Ndour tëgg na lu tax féetalewul ko foofu kon na nga nu bàyyi tooñ nga teg mbir mi ci yoon Kumba Gawlo woote bisam day féete anniversaire am am na ci plein droit waaye ñu nit am na plein droit pour Marshal Aziz bi nga xam ne ku dem la foofu la nekk ñu nekk ñu feneen Aziz dañ koy Marshal la set ba mu neex na ñëpp génn appel la waaw na ñëpp génn na ñépp génn ñu xam ne bakkan bi dem danoo ñor. na ñëpp génn maa ngi jégalu nag bu baax a baax ndax man bu may wax damay waxee xaal. même Minelia Minelia Minelia Minelia mi ngi expliqué mu ngi naan mu ngi naan famille bi bu fekkee bëgg nañoo dem muy télé yi bëgg a dem. waaw boo leen ma boole télé boo bëgg dem soo ma ko waxee. yéen a ngi dégg xam nga si marché naa jéem waxtaan moom ba si marché bi sax. Mhm. ñu am mu am ñu mu contacté ñu ñëw si marché toog fekkee taxaw ngeen mën na leen boole toog ba si RTS ak yëpp wax wax li ngeen fa a wax. même que fekkee marché bi tamit dinaa ko wax tamit la set ñu jéem a xool naka lañu invité gars yi ñëw ñëw ñëw teewlu si marché bi. te yëpp lañ mm. bëgg ñëw am naa yaakaar dina ñëw ñoom ñëpp. la set bi bu leen rëcc de. bisu Aziz la la nga mm. euh, Modou yow ak Aïda laay doolee ñaax la set bi. taxaw leen ci bisu Aziz la Aziz ko tànn. Mm-hmm. man xamu leen ma de. waaye dama ni damay insister ci la set bi barke sëñ Fallou Mbacke laa la wax. day am sax. day am moo waral liy xew xew sax day am day am de jërë ngeen maa ngi jégalu nag ci baat bu dëgër bi. Mm. maa ngi tudd bu baax. waaw jërëjëf jërëjëf Mina Mina Mina yaakaar naa Mina wala wala princesse. Modou Gallo. ndeysaan naam. dafa ay de maa ngi baax kàddu yu rafet na. Mm-hmm. di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér lu yàlla leen taxaw leen. Mm-hmm. yërëm suñu ñaar yàlla far leen àddina. di sant ñëpp di sant ambassadeur mention spéciale à toi prédateur yi te ñu ngi ànd tuut yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm ngërëm loo xam ne am na commencement mais amul fin hmm, ndax baax yombul dëkk caa jafe te ba ngeen jàppee ba tey bàyyiwu leen kon jaraa boot jërëjëf sant waa kër Aziz bu baax a baax gis naa seen taxawaay di leen ñaanal yàlla démb Aïda woo naa la ci affaire marché bi man mii maa la woowoon na la fii laa ko ndax lii ak lii taxaw leen ci bu leen bàyyi kon di leen gërëm bu baax di sant moo di. jërëjëf jërëjëf maama. maa ngi sama euh, commentaire. am activiste ci réew mi Mhm. après dinaa la woo ci suuf wax ak yow. allah. moo doomu dëkk bi xam nga ko xaritu Aziz man Pikine laa juddu fa yaroo fa laa màggee. dëgg la. Eh, ku ñu Maxoro Jege. suñu mhm, kër la woon tiim tool eh, eh, kër maa Anta maa Anta Ndiaye. dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg la waaw. mag ñi duggee ñoo fowandoor if ñaa xam ne moom bu baax bu ma gisee suñu tur lay jaar abu ci balo bu baax a baax baax sërëm moom lay ñamal suñu kër ci marché sawanal bi bombarde la marché sawanal bu dëgg la dëgg la ndeysaan sow du xam nga bés ko sow leen mhm, mhm, mhm. di kër kër bi ci topp laa dëkk maa jàkkaarloo kon li may wax dama ko xam ay dëgg la dëgg la ku xam Lamine dem Pikine kër militaire bi fi ñu defaree scooter bi sama doom bàyyi fa nekk ñu ko wax Lamine dem ñëpp ko xam Pikine ndeysaan dana seen tànk guddul moo tax sànq ba tey may jëm ci suuf ne nañ jëleen ma PV hmm. mun lay maane

taxawal t-shirt yi. marché marché ku leen provoqué bu leen ko faale bu leen. tontu ñu koor la mais ku nekk ci ginnaaw kenn. dëgg la nag noblesse la. Mhm. lu ne nga ciy gis ne du tontu du am. dañuy bëgg mbir mi leer Aziz te Tunkara feeñ ak Malick du ñeex ñu bari nak li ñu taxawé ak ambassade leen taxawal man ci suba ba tay maa ngi ci live bi amna luma wara waye li dama ndax doomu pikin la tukku laal doomu pikin ma yëngu deug la isa soxna si bal ma fofu da nga ni koñu bëss ka saw nga dëkk suñu ci di dis man sëtu Yuusu job la xam nga kër bi ànd saw xam nga kër bi saw gine waaw foofu laa dëkk man sotti Youssou Diop laa xam nga njóobeen bu baax merci man man sotti Youssou Diop laa maay maam xuja dem man rëbi na bés ko saw toj naa ko ah kon baax na kon yow kon li may wax mën nga ko dëgg ñoom Sylvain ñëpp samay moroom la ñu ñoo fawandoor maak moom man dama fa teel a jóge sëy si liberté si Sylvie noo fawandoor ba keroog avant miy gaañu dama ko gis deux jours mu gaañu an man sët Youssou Diop da nga ko wax rek sama fit tëb ak ñoom nday assu ak ñoom seen bu njaay ñoo fawandoor samay xarit d'enfance la <laughs> xam naa la xam naa la bu baax defe naa ne am na benn jànkatu xasida bu nekk foofu sama rakk la ki fa gën a mag ci jànkatu xasida yi rek bëgguma tooñ. ah kon kon kon yow kon kon su su ma doon fen lii duma ko leeral. dëgg la maa la seede ak kër Pa Alaaji Mor Seck. Ah, kon yow yow wax nga koñ ba kon noppi na. ñoo bokk koñ. jërëjëf kon Modou man li tax ma téye ci xeex bi dañ ñoo jege moo tax. ndeysaan dëgg la. après ma jox la sama numéro yow moom Daba. allo allo. ah. waaw. Mhm. voilà. jël ma dugal sama page jël ma ci suuf ma jox la léegi sama numéro. macha allah. Sikri Sikine ginnaaw raay raay Kër Massar ñëpp bu kenn mhm. allah. dina am réussite. Pikine Pikine kay na ñëpp génn. na ñëpp génn incha allah ñëpp dinañ na ñëpp génn mu ngi fii te moom gis na moom tamit. kon defe naa kon lancé bi moom lancé waat nañ ko rek. dëgg la mbir baa noonu. princesse maam Khoutia kontaan nañ dëgg la maam Khoutia waa. am nga daa dugg gis. Pikine la daaw di bee waaw waaw xam nañ ko. ah kon jeex na moom laa la bëggoon boole kon xam nga ko koñ mbir mi feranku laa yéen kon xanaa ma jeex na jeex na dëgg la ndeysaan moom laa la bëggoon jox numéro am xam nga ko kon baax na. daaw daaw de bee koy dégg rek ñu xamuñu ko comme xam waaye dañ koy dégg rek daaw de bee koy dégg rek naa la jox léegi ko envoyé. incha allah. la jox numéro moom moo doomu dëkk bi am na numéro. non ko jox ambassadeur. waaw. waaw maa ngi daw de maa ngi daw wàcce. waaw baax na kon yow Aïda. waaw kontaan naa yàlla trop yàlla na yàlla xam seen daal en tout cas. yàlla ngir Aziz Dabala. bàyyi nga yitte yëpp ngir Aziz Dabala tax moo ko xamaanoo ko. waaw yàlla na yàlla fayal boppam. amiin amiin ñun ñoo ci safaan Aziz Dabala mu ngi ci dëgg moo

war nga mën a fekk di ñooñu ndax sa dërëm dugg ci fayoo leen pour ñu waxal la fayoo leen pour ñu solal la tiset faloo leen fayoo leen pour ñu doxal la dañ la koy defal gratuitement comme bu la kenn gën a gore ndax ñëpp fay na seeni panel nag mais am benn panel boo xam te ne boobu ba tey ji moo ci xëy moo ciy gontu mais nag ah waa tamit nag ku la defal loolu noonu da nga bokk ak Aziz Dabala nday ak Baye bu ñeneen jógee ci àll bi naa la nangam ak nangam yaa wala xool lu rafet nga def ko pour waxante dëgg seytaane waxul deug me yak na xel loolu rek la seytaane moo mm-hmm. bëri doole rek man mom duma ma ba fa di taxaat en tout cas len lu may wax wax la dégg-dégg le laaj ndax kok mo ngi ad na ru neex tay ji ba ma ŋàññi ko ndax man ma dul du ma def lu ñaaw dal mais ngir yalla rek nañu rafetal dal la mëna wax ndax mom xamna man xamna mom xamna xam ngi may dégg ni may wax ak yow nii moom xam na mu ngi ci panel bi di dégg mom xamna man xamna naa ngir yàlla rek na rafet am na yenn ñoo xam jaru ko ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex kon jarul tey jii ngeen jël ay vocal di ko enregistré di ko envoyé ay mbokk Aziz Dabala naan carrément ñii kat dafa am lu ñuy jël si xaalis Aziz Dabala kon boog ñoo ngi jël ay comme ku ci mel moo ngi kat am xaalis boo xam te moo ngi koy tëyee dëgg la Samba Nguer bu lekkee man maa ko waxaat man ma koy waxaat fii Samba Nguer bu lekkee Aziz Dabala xaalis amul ah, Aziz moo tey ko war a lekk ndax mu nag kenn ëppale ko ci Aziz Dabala lu mu xamal Aziz Dabala ñun ay mbokk Aziz Dabala xamuñu ko xamuluñ ko ko te bu tey ji bu ne woon saraax dugg ci kër gi lan lay wax woowal leen ma Samba Nguer ndax Samba Nguer rek moo mën a daaj ji Aziz bu bëggee a dàq ci àddina Aziz bu bu mhm. bu réew réew ba kekku ba daanu rek Samba Nguer moo ko wax barki sëy moo ko wax loolu ndax ay waxam bal la mhm. te ñooñu di waxal Samba Nguer nag dañoo xamul kii Samba Nguer mais Samba Nguer lu muy baax baax baax moo gën a réew kuy réew ci àddina moo dàq wax ci àddina kenn gënu koo réew ak a réew mhm. mais nag ko jël lépp teg ko ne na carrément Aziz rek moo ko ñor mais nekk bul ko di ko ndax boo ko toppee ba ba mu teg mbir yi mën na taal fam waxal lu doy waar te bu dara du ko mm-hmm. dindi kon nañu mm-hmm. rafetal ñun ñëpp ñu ànd mm-hmm. xeexal Aziz Dabala yàlla ñu yàlla may ndam maa ngi kontaan ñun ñëpp maa ngi maa ngi daw ale jaar jaar bu baax ma ngeer ah, mais aduna Modou macha allah maam maam Khoudia maam Khoudia waaw waaw maam Khoudia. xol bi yëngu. dafa taxaw taxawaayu gor dëgg la laay dëgg la. merci moo gën a tuuti mais ku def lu baax doo ko dégg. Mm-hmm. kon Samba Ndiaye jërëjëf. laay ndeysaan. sama yaay yàlla na yàlla may gudd fan ak xolu. allahumma la sàmm aar leen muccal leen ci darajay nabi lal bu baax baax l'ambassadeur et toute l'équipe de l'ambassadeur yara boot gàtt gala ñu fier dëgg musuñu gisante musuñu dëggante laaj yi moo ñu boole ngeen may yéegal ma ci wax sama soxla kon loolu mun na mun nañ fay jërëjëf pour viendra yàlla na def ñu xam yàkkamtuma ci dara fi bi toll am na noo xam ne boo ko xëccoo sax day nuru leneen da ngay bàyyi rek lépp naturel mm-hmm. waaye heure boo leen taalee su ma amee temps dinaa yéeg jënd sama xel foo ndax Aziz jaral na ma ko doomu Pikine yaa ci dama sama bërëb bi yéeg mm-hmm. Modou jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah wax ji rafet na ambassade mm-hmm. wax deug fi yàlla kontaanati ci nan ñu wax rek waaw li mu li lii mënta ñak li mënta ñàkk xam nañ ci bir mi mënta ñak ay nak dañuy wax rek après la pluie c'est le beau temps te mo mo mm-hmm. nek ni sant yalla rek bu baax a baax a baax mm-hmm. baax baax ñaan yalla xeb doli ko ñun ñep nañ focus rek ci li nga xamantene moy la set ndax ñaan la ba pare waaw waaw nañ focus ñun ñep ñu focus ci waaw defe naa ñi ñi ñi ñi taxawoon sotti seen sotti seen bëñ di ree yaakaar na du am kon fii day day am day am incha allah kon incha allah nañ ñu jóge si ñëpp soba yàlla incha allah man tey naa ngi dellu ci daayira bi dama daayira bi laa génn maa toog benn kër rek waxtaan ak yéen waaye pare damay ñëwaat incha allah jërëjëf rek naa moom frère maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu bu baax rek naar moom frère maa ngi koy nuyu bu baax ndeysaan maa leen di siyaar xam nga Modou Modou man maa yéen yéen yéen dama leen yeewantal moo tax boo leen fi nekkee ndeysaan. man du ma bëgg di leen poser question du ma bëgg di leen wax loo barki Serigne Bamba dama leen yeewantal parce que xam lu bu baax parce que nit munoo ñàkk mu munoo ñàkk ba pare. nit si yoon boo ñàkkee da ngaa war a toog ñu ñëw di la defal. Mm-hmm. ndeysaan mais nga ñàkk ba pare ñi la war a taxawu wala ñi la war a xamal ñi la war a informer informer wu ñu la. ba yow ngay jog di lijjanti sa bop ay information dafa metti dal barki cheikhul Xadim motax man sa instant daf len di xawa ñewantal di di xam nga du moo tax du bëgg sax di bokk ak panel ngeen di wax may wax bo xolé ay dama nag panel di ñuy waxtaan parce que non lool mo lu yoon quoi yéen ngeen waron tok seen biir kër ñi ñew wala état bi ñew di len rendre compte di len wax carrément ni dossier bi fi la toll ak fi mais pas yeen ngeen di porter seen bop combat bi du won yoon quoi mais yàlla baax na li ci kanam raw wax yàlla leen gis moom wéetuñu muy yaay muy ñeneen ak ñeneen ñun yéenay suñu wéetal wax dëgg fa yàlla ba ñu waxantee dëgg rek yéenay suñu wéetal sincèrement yàlla yàlla moo amin kontaan nañu kontaan nañu jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf Mouda jërëjëf kontaan nañu léegi ambassadeur waaw xam naa si kanam rek incha allah Mouda man maman dem bi laa bëggoon waxtaanal ndeysaan ambassadeur maman dem bi laa bëggoon waxtaanal tuuti mama dem maa ngi lay siyaar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. dellu ziar bu baax. waaw yaay booy man dama jàpp ni yow politicien nga quoi wala boo dul politicien tamit nga doon patriote bu mag ci parti Pastef. loolu dëgg la. dama la koy tamit waaw te tamit ñàkkul ni am na ay panelu Pastef yu bari yow mag yoo xam ne bokk nga ci. tamit dëgg. waaw léegi man li ma bëggoon te di la ko te di la ko fàttali rek xam naa ne mu ngi sa xel mais dama la koy fàttaliwaat mooy yaay booy suñu mhm. message. Mhm. di jëmi Seydina Mouhamad na jàll si panel yooyu maximum de partage. dëgg la. loolu rek mooy li nga xam ne dama koy sàkku ci yow di rafetlu na sa taxawaay ci affaire yi bu baax a baax a baax. amul benn problème. dama waaw ñun ñëpp ay patriote lañu te xam nga yëfi patriote la ñuy xeex rek waaw. ñu ngi ci te si la ñuy sax nag ilaa yow mi diini mais daal message boobu daal laa amoon comme lu ma lay jàllale rek. amul mu lay nekk nga jàpp si te yàlla rek a tax. ngeen dem Touré dafa guddi. mais suba bu autorité yi autorité yi xam carrément ni. ko bàyyi message ñuy xeex waaw. waaw waaw waaw yow daal a xam daal yàlla baax na daal. Mm-hmm. dinaa si jàpp bu baax li ma ci mën incha allah. incha allahu rabbi incha allahu rabbi bàyyi nañ lépp si loxo seen loxo incha allah. yàlla yàlla yàlla leeral lépp. yàlla lépp ah. wala zéro zéro princesse ñëwal zéro. waaw waaw non princesse laa bu fekkee moom it am na ay kàddu yu mu ci sànni rek. bu mhm. fekkee moo ngi moo ngi dégg. bu ko defee am naa ko naa jéem a defal benn affiche rek ko ah. après nga defaale ko tamit comme ni nga defoon ci yeneen vidéo yi nga def ko bu ko defee gars yi mën di ko republier. def ko statut waaw defaale defaale ko statut waaw. Mhm. princesse. waa ambassadeur ziar naa leen. maa lay delloo ziar bu wér princesse. maa ngi ziar ñu ngi fekk ñëpp man moom instant bi li ma waroon wax yëpp Modou Kane wax na ko moom Aïda mm-hmm. léegi rek mooy incha allah la set bi allah day am wallahi damaa ngi ñaan na ñëpp génn man képp ku ñëw ba poste caaro nga ñëw ba arrêté caaro bi soo ma woowee man dinaa ñëw ba foofu jël si la na ñëpp teel génn ñu teel a def marche bi xeexuñu xuloowuñu sànniwuñu xeer dañuy sol suñu tiset ñu marche justice pour Aziz ak Waly xeexuñu xuloowuñu sànniwuñu xeer saagawuñu kenn tamit lépp dañ koy teg si yoon te xam naa ni loolu tamit nekkul demande boo xam ne nit ñi war a mën a bañal la comme que man nag amaatuma leneen lu te parce que Modou Kane wax na lépp Aïda wax na lépp Sama Nguer moom amuñu fayam famille bi instant bi ñëpp si panel bi la ñuy dugg di seetaan ñëpp des fois damay dama leen di partager live bi ñoom ñëpp même ñoom temps Rokhaya Samb tam dañuy dañuy suivre live bi mooy ki doon ki jëloon parole doon wax si ci revue de presse bi ñu defoon bii passé ñëpp ñu ngi dëgg la dëgg la du leen ñaanal yàlla gudd fan man moom ñun instant bi wóor na yàlla xaw ma daal lan laa leen mun ma billahi dama kontaan ba nga xam ne mënuma saa wax wallaahi ndax la ba tey yéen a ngi taxaw bu leen neexoon ngeen daw comme seen yéen moroom yi boobu ba tey yéen a ngi taxaw te doole ñu gën a góore incha la set man après naa la envoyé naa la après naa la envoyé affiche bi. waaw am na benn affiche bi ñu may defaral léegi nii ñu ngi ma koy envoyé. waaw léegi soo ko defaree dinaa ko dinaa ko dinaa ko dugal sama page. dinaa ko affiche bi après gars yi ñëw jóg ñu accepté ko mu dem ah. waaw après incha allah boo ma ko joxee ma ma publier waat ko. ñu publier ko ah. incha allah ñu ngi ñëpp bëgg a ñëw. ñi bëgg a hmm. ñëw nañ ma jël PV. suñ ma hmm. jëlee PV man dinaa leen tegtal ñu leen ñëw su dee dañoo ñëw ba posu caare wala ñëw hmm. arrêté caare bi suñ ma woowee incha allah dinaa leen jël ndax soo ko waaw ma leen mm. di remercier yéen kontaan nag oui salaamaaleykum leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax di leen jaajëfee dama doon laajte ndax France dina am marche ak fan lay am ah? man dama doon laajte nag côté France dina am marche wala parce que dama dégg ñu si tudd diaspora bi. pour mun participer. non pour pour man ok manam non xam nga maanaam gars gaari gars yi marche Sénégal hein ah, ah wa mais dañuy defar ay t yo xam si ni. waaw waa diaspora bi pour jëm see jàpp. d' am na am na ben numéro buñ ñu fi fii hein ah, moy numéro Samba Nguer hein d'accord pour pour lu waay mën ci ci ci t-shirt yaay xool bu la nexé nga ni. mën naa defar lu ñett te set wala mën naa defar yaay xool loolu lu sa xol attan. d' accord nga jàpp te yàlla tax. d' accord loolu lañ doon def. d' accord kon kon loolu ñun loolu mooy mën a doon suñu participation ñun ñi fa nekkul daal. waaw waaw waaw waaw ñu ngi nekkul. voilà ah, en tout cas merci si li ngeen di def nii man dama jàpp ne boobu ba léegi damay suivre ah, dama leen di déglu si suuf. man moom sax tàmmuma di yegg si ay live bon. Euh, première fois ma yéeg affaire Aziz Bey parce que ku ne méttiwu la daa fekk euh, amoo xol bu rafet daal man damaa sant comme moom donc comme sama doomu mm-hmm. baay la dafa mel ni da mbokk ak moom ndey bàyyi benn biir dafa ma métti métti ba toog naa ay fanu fan fan lekkuma mënuma mm-hmm. nelaw bu baax parce que tellement daf ma choqué lu mel nii mun a am surtout euh, période yi ñu toll nii mm-hmm. nit ñi war a gën a rafetal xol yi war a gën a setal xel yi mais bon

donc ñëpp mm. a ngi leen di encouragé di leen remercier pour ngeen continuer man moom comme xam naa affaire yi dinaa si kii dinaa si farlu ku ma si mun a wax mu ut ko mu ut ko fii au niveau de la diaspora incha allah et que on est de tout cœur daal ak yéen pour affaire bi incha allah yal na yàlla def yëpp te ngeen bàyyi xel si sécurité bi aussi parce que comme ni ko magam bi waxee rek seytaane mm. xaw ma lan yàqul xel mais xaw ma koy waxee daal dafa xaw a rër tuuti donc mmh. bàyyi leen xel si sécurité bi aussi. Euh, saay-saay bañ a jóge fee yàqal leen mmh. wala rax si daal. mais je pense que je vous fais confiance xam naa ne xam ngeen di def. Mmh. macha allah yal na yàlla mottali yëpp. amiin amiin jàmm ak salaam mu fekk ñëpp si jàmm ak salaam mu ànd ak wër-wër li et puis yal na leen yàlla fay seen xool sàmm ngeen moom aussi kenn amul fayam parce que kii ànd ak yow ba mu neexee kooku du xarit ki la taxaw bi mu méttee kooku mooy xarit. te kii moom góor dëgg la. góor dëgg la te ay góor ngeen parce que bu ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen macha allah. am na leen yàlla jàppale gën leen jàppale yàlla dëgëral leen taxaw leen musal leen et puis en avant tout daal comme on di mhm. ñëpp ak seen gannaaw macha allah. dañuy suivre même bu ñu dul yéegi aussi dañuy mhm. suivre. dañuy suivre merci merci yéen ñëpp. jërëjëf seen liggéey rafet na macha allah merci. jërëjëf jërëjëf ndeysaan kàddu yi rafet na trop trop trop trop comme li ko comme li ko presse waxee léegi nii ah maam su la ñëwee ba poste ba kii ba poste caaro ah wala ko wooyee moom dañ leen expliqué ba ngeen ñëw ba ngeen ñëw ci kër gi ah loolu leer na leer na nañ ah yéen yéen yéen ñi xamul yéen ñi xamul ban côté la loolu woote gars yi dañ leen jéem a teg incha allah salaamaaleykum waaleykum salaam waaleykum salaam salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen siyaar. ñu ngi lay fay bu baax a